karaafil xamsuna qaaf ijaabu rasuul samsul bilaat moo indiwaat kitaabu wa duha téere bu bari njariñ toll ci ñetti téeméer ak fukk ak ñetti paas loolu de mooy jeesul ñoroon xeex ba am na ay ñaan ak nawafiil ak lenn ci njariñal sóoratu yaasin ak mbóoti juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeen ci turi yàlla yii di asmaawul husna am na naafila kuy faj aajo am na mbóotum daqaa'irul aruuna rasid dalay aar musal la ci ay noon ak seytaane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 déggee. su la yàlla euh, mayee baat bu neex euh, kon seen émission nga mën a way ca wayoo yeneen de ca ngay euh, way na sa way wëli na Mara Cissé ñu gën koo xamee ci gëjoon naa taalif léegi sa ci taalif te seeni taalif mu baas tey comme niñ ko defee woon fan yële passé rek ndax mbokk yu bari ñu ngi ko doon rafetlu. yaa ngi yu bari sax laaj yoo xam ne denc naa ko tey ndax. Euh, parce que dama gis nga bind téere te dañu wax ne borom xam-xam nañu bind ndax soo gisee tey ñu ngi wax ay Dakar ay Montesquieu ay Jean Paul Sartre ay Darwin yow gis nga parce que dañuy bind ay téere bàyyi ko ko teg te te téere yi bind sax daanaka doxalin ñu gis ne Seydina Muhammad mi may way yàllaa ku njëkk a way si keneen ku ñëwaat di ko way dangay barkeeloo ma bëgg la nii may way kooka mooy Muhammadu Rasul muy lu am solo ndax borom xam-xam yi bu ñu doon def nii defe naa ne ñëpp dinañ jëriñ te gis naa ne aussi téere bi lu si bare bare bare ngi nii xam nga jamono yële paas jot ma ko woon a càmbar bu baax ndax ay mbokk ñu ngi kii mais آه، على من بعث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا إمامنا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ورجى الله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 jotaay bi si bisimilah. rahmaani rahiim lakum asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ak man-manam ni nga ko waxee émission Wadduha la si Almadina dimanche bu nekk nu fi wettali konte 22h ba 23h bi subhanahu wa taala di ko musli ci bakkan ak seytaane nu ngi koy nuyu di koy siyaara di koy ñaanal ak julli ak selman ci sang sang bi nu jàkkaarloo dina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di nuyu fépp foo xam ne sunu kàddu àgg na fa ak saxaabaam nuyu di siyaara di ñaanal ñëpp lanu yàgg di koy wax di ñaanal ñëpp mu si géeju xéewal fa tabaarakala loolu mooy nuyoo bi xam naa dañ lay bàyyi nga ñëw si bu baax a baax a baax waxtaan bi tey jërëjëf jërëjëf sëñ Mara ma fàttaliwaat moo ko di kattan ak may gi mu ñu may fii ci Bourguiba seen teewaat ak yéen koy wax Modou Cissé jotaay bu gën koo xamee ci Mara Cissé tedd di jotaayu xam-xam fa tabaarakallaahu ci seen émission muy amee fii ci rajo ci <laughs> di leen ko defal sen tabaarakallaahu <laughs> wallaay ndeysaan dañ koy ubbil rek <laughs> xam naa am euh, dafa am fu ñu jaaroon waaye dañ koy ubbil ci kanam allah di ngeen ko dégg comme ni nga daan defee sama njëlbeen maa ngi lay wax ne xam nga gars yi ñu ngi lay wax cent pour cent tabarakallah li nga mooy big bang mhm. la mhm. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ñooñu Darwin mhm. moom mooy le britannique mille huit cent tey borom xam-xam la moom moo doon wax sax d'ailleurs nit ci kilifa diine yu tedd <laughs> alxuraan <laughs> wér <laughs> euh, dina xam la séparation des pouvoirs lu tax ñu mën leen tudd tey du téere wallaay ndeysaan wallaay wallaay kon sëñ Mara ñas alkawlaxi yow tamit ñu mën laa tudd yow tamit téere moom mooy tax ñu mën laa tudd tënk xam-xam bi nii. wallaahi ak mbooleem xalif généraux yi nga xam ne ñu ci biir réew mi yëpp. nu si nu si sant yàlla bu baax sëñ Cheikh ndax dafa doonoon lu nu ni seroon te macha allah mu àndoon ak coono waaye lépp it ak ndimbalu yàlla yàlla dimbalu nu si ba mu am ndax dafa. dañuy yàgg itam di ziar nu naan nangam baax na nit di koy ñaane nangam baax na nit di koy sikkar nangam baax na nu koy bind nangam baax na nit di si muslu wala mu siy ñaan damu bëgg ñoddi noo xam ne bi nit ñi ñu bëgg lu baax la ñu bëgg xam-xam lan mm-hmm. fa tabarakalaa nun yéene woon ne li nu yàlla jagleel fa tabarakalaa yéene nañ ko bokk ak àddina bi yëpp looloo doonoon sabab bi te noo xam ne bii gëstu yu bëree bëree bëri si nasaraan bi la ñu si bëree bëri côté nasaraan la moo ëpp lu nu nu nu gëstoo nu am si wëlle rek xarit yu baax yoo xam ne bii jàpp nañ si ndax koo gis kitaabu Wadduha te nu ne ki ko defar ndonga daara la da nga xam ne macha allah bëri nañu sa jàpp mhm. looloo doonoon yéene yéene bi ni nga ko waxee nag du lenn rek lu dul ñëpp mucc ñëpp yokk. Mhm. nee na noonu mission Wadduha si kat loolu leen yéene. Eh, si kattanu yàlla képp ku nu yàlla booleel ngay mucc di yokk ànd ak seen sago mooy tax macha allah bi nu waxee nu dégg te nu ne bind day des nu yéene def téere boo xam ne trois cent treize pages la ni nga ko waxee tàmbale gi nekk xibaada ndax mu ngi commencé si laab di koo xam ne bii télé nga noo xam nan la ni laabee. di ziar waaw soo fa demee danga nga ko mën a am. technicien bu baax bi ñu si sangu. set ne nu koy waxee di ko ziar wala jàpp te bëri lool ñoo xam ne bii danoon koy doyadal. te laab mooy lépp. Mhm. ataxaara nisful iman ne nu ko xadis waxee. fat moo tax nu ubbeeku ko walaay walaay mooy lépp nu ubbeeku. di leen wàcce seen wàccuwaay teg si xibaada ba tey ndax mooy jéem a xam. itam. jéem a sopp asmaawu lay li xusnaa yi mooy quatre-vingt-dix-neuf noo daal laax yi nga xam ne bii képp ku ko wattu sa yaram day xaram safara baax a baax nu indi len nat si njariñam pour nit ñi gën koy bëgg fa tabaarakallaa ndax bëri na lu nit di doyadal dafa kumpa rek la macha allah waaye su ku xam lii nekk si asmaa wulaayil xusna fa tabarakalaa loo ko jàppoon da ko gën a jàpp moom it mu boole ko si ak yeneen ak yeneen xam naa da nga si kanam. bon dinaa ñëw si kanam mais bala maay ñëw damay def benn parenthèse ndax euh, il faut nga indi si benn tontu ndax léeg-léegi. Mm-hmm. may dégg ñenn ñi ñu ne waaw euh, secret. kenn du ko bind téere wala di ko weer wala di ko kii <laughs> te dañu wax ne des fois dafa renfermer ay secret la ñu wax mhm. wala te ñu ne lan moo tax yow nga fësal secret yooyu di ko bind ci téere <laughs> na ñu la sëñ xadim sëñ xadim nekk waaw fat la mu bëgg liggéey lépp mais am na si loo xam ne ba tey secret la sa moom loola du ñëpp koy xam loola seen sëñ seex mooy la nga xam ne bii xam nga ngànnaay euh, sañ nga man nga am njëgu fetal mhm. waaye suñu ko yor di koy doxantoo te amuloo autorisation. incha si am xam-xam yoo xam ne du fépp la war a siiw. waaye loo xam ne dañ ne la soo ko defee mucc soo ko defee seytaane sori la soo ko defee bu la sunoon fexelee du du sotti soo ko defee. sa yaram dafa xaw a jagadi boo ko defee yaram ba mën nay woy loolu bokk ko jullit yëpp moo gën loolu kenn ko nëbb loolu moom fa tabarakallah du du xam-xam bu nuy war a nëbb am na si loo xam ne nag jagleel la ndax xam-xam la ngay yër la la ngay yëg euh, la ngay yëg nag loola mën nay nekk leneen loola moom xaj ña mën nañ di wax ne duy si waaye lii nga xam ne li si nekk lépp sunna la ndax lenn nag génn sa alxuraan euh, fa tabarakallah bokk ko jaam ñëpp gën faatixatul kitaab nga xam ne nu nga xëy di ko jàng toujours te nga mën wax nit loo xam ne dana ko saafaraal tawatam dana ko fajal aajoom dana leeral xolam loola fatabarak la bokk ko ñëpp man moom laa gën a gis naa ci première partie euh, fatabarak la ñun yàlla dimbali noonu émission Wadduha loolu laay wax toujours ndax dañuy wax ko xëcc robbi na war ko bàyyi caabi wallaay wallaay nangam ñëwal si man nangam ñëwal si man ñun loolu ñaan yàlla danoo yéene fu nu mën a toog ak fu suñu kàddu jibee nit mën a am lu mu fa jëriñu looloy sababu téere bi nee naa nit ñi danoo bëgg danoo bëgg xam-xam ba léegi tamit ci soppi yi nga xam ne euh, nan koy amee xaw di jafe euh, mën nay am la dégg doo la ngay bind doo ko jàpp xam nga dama def émission dama di def benn émission euh, depuis nekk fële ca 2012 fatabarakalaa toujours ngay dégg la nga waxoon daa am lu ma si kii dama bëgg lii dama bëgg lële moom mu jox xelaat na lii jéem a jaamu yàlla si loo xam ne da koy bokk ak jaam ñëpp mooy gën mooy loo xam ne day des loolu bokk na si li gën a waral sababu kitaabu Wadduha loolu am na solo parce que suñu gisee ndongal daara ak mboolem ñi nga xam ne am na livre bi bul ko wecc ko mukk lu yees quarante-cinq mille ne ko déedéet bu mënul a ñàkk bu mënul a ñàkk ñëpp xaj loolu la te lii da lay njëriñ àdduna ak àllaaxira wallaahi wallaahi parce que lii si kat waa yàlla mën na la defaral sa dund gépp si kattanu yàlla parce que déjà gis naa fi yaa ci première partie bi mm-hmm. mm-hmm. mooy nan la laabee wallaahi ñuy te nag problème yu bëree bëree bëri say seex eh, ñàkk laab rek ko waral waaw sayaatin yi eh, seen i pexe yay anto fa tabarakalaa fiir yay jàpp ak euh, kortu yay ni sànni mu dal ak yooyu yëpp bu nit dee saxoog laab di saxoog tudd yàlla dinaa koy wax dinañ koy sànni euh, dara loolu day dem ba primé wala day wër ba sonn amaana sax mu dëpp mu dëpp dal sax ko sànni woon effectivement yooyu yëpp nag fa tabarakalaa bëgg nit ñi gën a gëm seen bopp comme ni ñuy gën a xam ne mu ngi noonu fa tabarak lu mu ngi si anti ah, missile wala belende yooyu yëpp fatabarakala mu ngi si lépp loo xam ne luy jariñ doomu aadama la lépp loo xam ne luy jariñ doomu aadama tënk euh, waaw maa ngi fi gisaat encore ci li nga xam ne mooy deuxième partie bi mooy euh, di fikar turu yàlla yi mooy euh, juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi nga xamante ne ni moom mooy ci turu yàlla yi te doo dégg mukk nag lu ne kii sekkaro ko def loo mhm. te mu yem si tur bi lu ko mën a hmm. gañe dafa tabarakalaa ah, lépp ñu tudd yàlla day dof loolu waaw loolu xam nga day xaw a nuroog macha allah lu lu ne cent watt la atten nga ñëw sa trois mille watt mhm. xam ne lépp lu yàlla bind moo yoo xam ne bi tur yoo xam ne lam day diis diis gooy xam ne yàlla war nga say am isn war ngay am ak pouvoir sart ya nga koy liggéeyee tamit. bi ko yàlla hmm. séddee waaye juróom-ñeent fukk juróom-ñeenti tur yi. monte day ak loolu lépp lépp lépp xam nga doo dégg mukk nit ku ne dafa. xelam dafa wóor benn dina da doon sikkar rahman wala daf doon sikkar latif. wala daf doon sikkar raouf wala daf doon sikkar karim. te yooyu yëpp fa tabarakallah pour eh, xeetam asmaulaay la xusna la yoo xam ne. pour ñu bàyyi ci xel indil nañ leen si yoon yoo xam ne. importance bi nga xam moom la ñu am moo xam ki nga xam ne bëgg na am. amul mu daan def texe àddina ak alaxira comme rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana ya allah noonu nga koy toppoo ba si sabur fa tabarakallah da nga am àddina ak alaxira su fekkee ne bi looy xewloo nga sëy ut arhamahum min joxin ya allah arhamahum min joxin ya rahman arhamahum min joxin ya rahim ba si sabur Mm-hmm. fa tabarakallah doo ñàkk mukk mukk mukk looy sàqan su fekkee kiis nga si tamit rabbi si neexil man yaa allah rabbi si neexil man yaa rahman rabbi si neexil man yaa rahim ba juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi ah, te ñaan moom yéeme yéeme la ndax ki ngay ñaan muy nangu ñaan kenn la mooy jëla jëlaalu kon nit mënula am lu ëpp crise bi ci côté wàllu am am bi tur yooyu. Mmh. crise bi ci wàllu njàng ci côté boo dem rek tur la yoo xam ne boo sa barkeelu mën na faj aajo. Mmh. Mmh. rawatina nag nga barkeelu si yëpp. effectivement nuy indil nag loo xam ne bii macha allah bu seen nit. dafee tawasul. Mhm. daf si tabaru ni nga xam ne yéen xeet yàlla yàlla mën na ko see wuyu. effectivement fa tabarakallahu mais am na benn mbokk boo xam ne nee na ma yàlla day ñëpp lay dégg waaye du lay déglu. pouvoir dafa gën a waaw dégg ak déglu lu wut la. pouvoir dafa gën a yéeme. <laughs> Ah, la wér la. non dama gis benn mbokk. mu bokku kaamil bi mu ma. Cheikh dañuy yelwaanal kaamil gi ma ne ko déet da nga naan da nga yelwaanal sa bopp. Eh, ndax wallaay ndeysaan wallaay lu wér a wér bi numérisé mu ne waaw ma ne ko da nga naan dama yelwaanal sa bopp mu ne ci yoo xam ne xaalis sëñ Cissé peut que. mu ne ñaan xamuñu yor. lu wér a wér lu wér lu wér lu wér lu wér eh, te suñu ngëm-ngëm aussi xam nga tubaab dafa. wala li ñu wax am ko te xamoo ko dafa mel ne dañoo toog ci jamaa di yelwaan. dëgg la lu wér a wér. loolu lépp di wax tamit ne jamaa fu ñu jaayee jamaa ak përëm. bu përëm ba njëkkee jar sa njaayeen ba la. wallaahi jullit jullit. dafa amul lu gën eh, alxuraan. amul lu ko gën a kawe. dëgg la c'est dinaa koy wax ne lépp léegi la gën a. développé. effectivement kii ñaan kon lem laay toog di wax nit ne Sapon di dégg di lay dégg. kami ñaan nit ñi actuellement ku ñu déglu 3W Sénégal nga def almadina noo xam ne kon mbiru informatique avancé na lool lool lool lool waaye lu tax problème yi gën a bëri kon war na noo xam ne kenn mën a defar jamono te mooy borom bi jëla jëla kon ñun jullit yoo xam ne képp ko ci woo yàlla bu nu defee tawassul c'est alxuraan sunuy xaajo dinay faju sunuy yaram dinay wér tey it kenn du mu not waaye fa tabarakallah saytaane mën nañu bëree bëri ba ñun lu ñëw rek nu say waaru te du nu waaru ci lay ñaanal jaamu yàlla yi nga xam ne yonent bi bàyyi sallallahu alayhi wa sallam te mooy alquranul karim alquranul karim fa tabarakallah mox ji si la boo xam ne ba ilaa yow mi diini du nu am lu ko gën a kawe nee na la booba daan daay man la téere bi dafay reste ah, wallaay wallaay téere bi Wadduha kitaabu Wadduha bu abota war day reste parce <laughs> que kii même war mu mën a yóbbu sax ci archive yi fële euh, ci kii ba ñu def ko fa euh, su ko defee defi reste ba abadan daay mën wallaay wallaay kon daal bu mu la jégee moom mooy que tey bu ñu taxawee dëggal suñu bopp am na si loo xam ne doo dem fenn di ko jéggaani dëgg la dëgg la fenn ko wuti soo gëmee sa bopp mën nga ko defal sa bopp da nga wax lu am solo nag ma ne kon macha allah nit day gëm boppam dinaa di wax ne kii jomba ki jombale boppam deuxième <laughs> doo ko dégg mukk mu jël première <laughs> effectivement <laughs> waaw loolu te toujours it boo jàkkaaru ki nga xam ne bii ku jege la koo xam ne bii boo ko woyee mu wuyu la te moo la wax na ñaan ma dig lay soo ko ñaanee mu wuyu la Euh, su pas-pas ba dëgëree rek fa tabarakallah jàpp na la ngay sàkku da ko am nanu ko waxee rek mbër ma doon bàkkoo ku ne yàcc maa man ku yàcc maa man ka yàcc ñëpp koy man effectivement bàkk kon loolu lu am solo la mooy gëm sa mhm. gëm sa si nga xam ne mbir yi kenn ko yor. te boo jaaree si yoon ba rek fi tabaraka la da nga àgg. effectivement ma xam leen ne livre bi mm-hmm, par di par sax voilà 313 page la euh, boo xam ne Mara def ko génne. Mm-hmm. peut-être que sax presque lii deux lu si nekk si <laughs> alxuraan si ayaat yeeg nuy si kër yëpp mën nga ko am si français bi ni nga ko mën a jàngee si. jëflante noonu nga ko mën a jàngee si français mhm. benn mbokk daf ko jël si woon fan yàlla war tukki Gabon mhm. mais nee si aéroport bi la si commencé lire tuuti mais nee na ko jotte gis ñëpp doonoo yéemu si ne lii lu tax àddina bi yëpp àggul fépp ma ne ko yéene bi si kattanu yàlla mooy ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp jariñu si ñëpp au niveau national rek nga ko yemale si si kattanu yàlla néew na fu mu àggul si continent yi fi nu a néew na fu mu àggul ndax www.wadduha.org inchaallahu rabbi képp ko fépp fu waay nekk su ko ubbee rek point wadduha.org bu ko defee kilifa bi nuyoo ñu dugg ci liggéey bi incha allah as'aluka ya man huwa allahu alladi la ilaha illa huwa arrahmanu arrahim malikul xiiwal dikkati na jóge ci alaaji Modou Cissé ñu di ko wax Mara Cissé mi leen andiloon karafiil xamsuna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

savoir. 71 59 77. 77 571 59 77 mbokk dua kitaabu Wadduha njëriñam ëpp na njëgam junni ngir faj sa mbir ya yàlla Ya ci giñ yoor yoor la léppay leer alaaji Mamadou Mara Ya Muhammad yaa ma leen gënal yaa ma leen mënaloo Muhammadu Rasulullah su la yàlla mayee baat bu neex nga mën way te wayoo yeneen dee na ka way dee na sa way wa nii na ko si Fatihatul Kitaab xel nangu ko mhm. fa tabarakallah kon sunu indee na si Fatihatul Kitaab mooy la ma waxal rek lenn génn si alquranul karim hmm. moo am lu tuuti loo xam ne dinaa ko si maye. ndax juróom-ñaari. yaaytaar na sa xel dem si yónneen. kattaar ba yàlla yónnee ko soo rëbb yaa képp ku yàlla ba képp ku yàlla may njaboot seetal taayat bi bés ba muy tolloo. kon xayril mahdubi alayhi wala daali mu nekk samedi comme noonu nga koy mën a déggee pour mën a xam ban bés la. sa njaboot di tollal da ngay jàng fatiha boo àggee si bés ba mu tollal nga baamu aaye ba ba 70. bismillahi rahmaani rahim def ko si ndox di ko koy nàndal. wala nga bindu ko ba pare def ko saafara di ko koy nàndal loolu su demee ba gën a dëgg. arrahmaani rahim maliki yawmiddin giiru dundam yàlla dana ko dàqal lépp lépp lépp luy seytaan te fi nu toll ku mucc rek nga koy xëy ku mucc rek àgg. àddina su doon ne course la man nga ne mucc rek fa tabarakallah da nga ne si kanam waaw te ñëpp mucc leen yéene rawatina njaboot yi kon loolu ñu ngi koy baaxee ñëpp juróom-ñaari aaya yi alhamdulilahi rabbil alamin mooy dimanche mm-hmm. noonu nga koy jëlee rek mm-hmm. a am na moo xam moo xam boo xam ne bés ba bismillahi lasi يلا ليرال خلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سميع عليم فتحت الكتاب بسم الله السافي بسم الله كافي بسم الله محافي ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بحق رب لي صدري ويسر لي أمري limu turam ngay ko pour jam pour mu sonal pour nga ko effectivement téré bi def na rabbil alamin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana allah ji nga tuddu nga ne allah ji 43 la su dé tabarakallah nu ngi sant yalla bi nu soge ngeen jotay sen émission mhm. wadduha tour bu mu mëna doon tay di 8 novembre nga mëna xam sa tour ban chiffre lay japp 8 novembre ngay takra limu fa nuyo bi matna cheikh matal nga fa seytaane nopp nuyoo nga si sama kaddu comme ni ñu daan nuyoo kon nuyoo bi ñëpp fa tabaarakala Cheikh Ahmed Tidiane jox na jox na leen ko ñaan mm-hmm. tamit Cheikh Ahmed Tidiane jox na leen ko mm-hmm. mm-hmm. boo paree di sàkku si yéen ñaan xanaa di nuyu euh, sunu technicien bi ñu jàkkaarloo dimanche bu nekk muy Iba Mar Diop di ko ñaanal di si moom it di ñaanal kër gi kam solo mu ngi si liifur bi eh, mu ngi si liifur bi dinaa koy wax lu bari ni dafa war a xam tuuti xam sa limu tur day tax macha allah lépp. ngeen doon ne ñaan tukki la macha allah boo tegee si yoon da ngay. si gaaw a gaaw. waaye 90 point 8 tamit mm. na am tardement mm. si kitaabu Wadduha soixante da nga koy gis ci cent quatre mm-hmm. mais fatahatul kitaab bëri na bëri na bëri na yoo bi tënk nañ ko si cent quatre soixante fa tabarakallah comme ni ma ko waxee nuyoo bi yëpp sama koy gën a jegele boromam wax naa fi ne macha allah su ko defee ku jaar foofu rek dinañ bokk yow sax na waaw mooy naafila moom moo nekk ci waaw mooy si quatrième partie waaw mais naaf la wax na lépp gën eh, lenn gën si fatiha mooy ñaari rakk bu ne 19 boo paree nga def ko 132 euh, fatiha kitab 132 mooy al mooy mm-hmm. xal bu xal bu mooy xol mi naaf la wax na bi macha allah képp koo xam ne bëgg nga gën a jubóog sa borom. bëgg nga eh, saytaane sori la bëgg nga bokk si ñi yàlla gërëm 104 soo ko dee def tabarakalla yàlla day la jaar tey moo nekk ci troisième partie sunu nga xam ne nekk point moo nekk ci si bu nekk 19 boo sëlmalee nga defar sunu wëlëre yi nga xam ne bii nekk la sa bu la neexee par exemple léegi ñaari rak yooyu premier rak 19 fatiha fatiha boo sëlmalee nga door ko def 132 xam naa ku koy man guddi altine ak guddi aljuma yàlla may ko barke doxaa eh, te mooy wala saw fa yëf bu ko fatar daal ne léegi xol yee yu xar ji yi soppe yi xol yee xomaat si sa kàddu mu ngi noonu ñëpp macha allah ne macha allah da koy nettoyé waaye di nuyu koo xam ne kattanu yàlla bëri na lool lool lool bu am solo la si ñun te mooy jàll bu wakkaam ñoo xam ne jëfandikoo nañ ko koy siyaara di na solo parce nawafil yi noonu bëri na ay nawafil yoo xam ne day dàq njàqar nawafil yoo xam ne day faj aajo naax naafi la mën na ne audience la bi borom te macha allah dinaa di wax ne audience saa yoo dem rek da ngay lool ne lool lépp loo fa yóbbu da nga si am satisfaction loolay tax tabarakalaa nu indi si buntu yu bëree bëri yoo xam ne ay nawafil naaf lay day gën a jegale nit keeg boromam di koy siyaara fatabarakala day génne boo xam ne di ko fidèle la génn bi danay génn si nit bokkaale bokk na si ñu njëkk ne leen euh, gis nga antivirus la a xool dañ cey def loo xam ne lu kenn dul natable la bismillah loo xamante ne nii doomu aadama bi boo nekkee ne yàlla def na ne mën nga bind mën nga nafa daanaka mën nga nekk sëriñ lu wér wér mbaa kenn du ko jël rek kaalawu rek commencé comme sama classe gi kaalawu rek wallaay wallaay ah. ku ñëw ma engagé la na jariñu jariñ rek bu sa yóbbu d'accord na mas naa de day def lu bëri si bu nu ñëwee si yoonu yaasin yi masoon naay def émission Wadduha si siiwal fi ma nekk si lu ma nekk nekk mu ne déedéet waaye mu ne kon macha allah ñun nañ ñëpp jariñ wallaahi nañ ñëpp jariñ yàlla xam ne ne ay junni junni junni naa jot ko ñoo xam ne bii dañuy déglu sa émission am loo sa wax ñu jëfandikoo ko yàlla may leen résultat ñaan yooyu nu lay ñaane li jàppal ne nit mënu la am lu ëpp loolu macha allah alxaaji euh, ñaan mooy lépp fa tabarakallaa te ñaanu nit ko xolam sedd du dëpp day yéeg mooy tax yéene bi rek mooy loolu yéene bi mooy képp ku ko amit jariñu si euh, jariñu si waxee rek mhm. émission bi moom loolu rek lan si yéene fi tabarakalla effectivement loolu am na solo <laughs> loolu am na solo ma ma fàttaliwaat rek ne ndax fii sax huitième bi maa ngi ciy gis protection de la femme moom mooy mhm. Mhm. aar ku jigéen ñi wallaay ndeysaan jigéen ñi moom war nañ leen aar lu wér a wér a mais xaar ma fàttali mbokk <laughs> internet rajo Almadina FM ngeen di déglu cent point huit euh, seen émission Wadduha ki leen ko euh, defal ñu koy wax Serigne Modou Cissé ñuy gën ah, koo xam ne Mara Cissé ki leen koy présenté Cheikh Fall am solo ma fàttali ne Serigne Mara daf génnee téere téere boo xam ne Wadduha la tudd kitaabu Wadduha muy téere bu ñuy wax Wadduha <laughs> téere bi nag mbooleem jullit bi mën a yittewoo rek <laughs> mu ngi ci biir daanaka peut être que ni ma koy waxee nii ak lii nekk ci biir téere bi sax moo ëpp li ñuy wax nii te xam naa ne kii ko doon jàmbar dina jël presque at <laughs> wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay si lenn tamit si suratu Yaasin waaw lenn mhm. ko si lu bëri bëri ak yooyu nga ko waxee luy aar njaboot mooy cinquième partie bi nekk ci Yaasin boobu gis nga xam ne lépp la indi <laughs> ne ko ko euh, parce que am na pharmacie lu euh, bëri ne <laughs> parce que dinaa ñëw fii tuuti ci li nga xam ne moom mooy ci téere bi mm-hmm. mais pharmacie wóor bi aussi dama ko ci doon bëgg a kii far yàlla def temps bi xaw temps bi xojoon jaam mhm. bi nag saa yuy julli rek mu ngi audience ak borom bi jël parti bi laay jël man toujours kaaraange laay wax ndax wallaay dama koy wax bonis li wax sànq <laughs> bonis nag fa tabaraka laa ñu si bëri euh, dañ di mhm. yaa ngi wax ne 7000 francs wallaay ndeysaan wallaay wallaay ku yore oto bëgg mhm. aar sa oto ndax nag sëñ Mara yaa ngi dañoo lu baax wallaay lu wér a wér a wér mooy li ma wax rek. <laughs> yal na ñëpp mucc. yal na ñëpp mucc fa tabarakalaa bëgg ñëpp mucc ñëpp yokk mooy tax nu defee ko noonu bokk ko ñëpp tey macha allah bokk na si. lu koy luy aar jigéen ju wan na lor naa koy wax ne am na. mu ngi fii ci am na si am na si. ordonnance yoo xam ne amul si benn pharmacie yàlla yi nga xam ne dul ngi si téere borom bi te mooy alxuraanul karim boobu indi nañ ko si limu turu yàlla yi boo gisee léegi sëñ seex léegi sasaare yeen yi ni mu bëree ak euh, est-ce que xam nga def naa apportement yeeg yeneen ak yeneen yëpp bëri na bëri na bëri na loo xam ne ni ni ma koy waxee ñu lu bëri yaa quelque chose man dama see yi dañoo daal sama man leen est-ce que demul ba mu nekk dem di ko fay wala te ku ñëw rek ñu daal di lay xotti rek yóbbu la wallaay wallaay wallaay ndeysaan bëgg ñëpp mucc te it macha allah nu commencé ko si njaboot moo tax nu indi lay lay aar jigéen jëw ji wan lor di ñaareelu allah bi ko yàlla may xelal lu koy aar juróom-ñett ak juróom bi leeral gannaaw fàtt nga def ko parce que moom 4500 ah 4500 lan koy wecci bu dee kiirlaayu jigéen ju wérul bi tamit 4500 la am si oto ak lépp luy machine mm-hmm. même kooku amul tey faral di tukki soo tey si kattanu yàlla kiir laay la si lépp loo xam ne machine la moom it 4500 la kiir laayu kër 7000 fa tabarakallah yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen yoo xam ne si kàttu yàlla cuuraay waaw cuuraay wallaay wallaay wallaay cuuraay yi nga xam ne fa tabarakallah bëri na si ñoo xam ne nelaw da leen di jafe boo ko barkeloo fa doo bokk ak saytaane nekk mooy cuuraay bi bokk moom kër waaw fa tabarakallah moom it 500 lan ma ko waxee rek 78 wallaay wallaay ma ne ko bëgg ñëpp mucc ñëpp yokk ndax cuuraay sa ñëpp 500 téeméer wallaay wallaay wallaay taxi euh, Wadduha mu ngi fi ba léegi lépp day dellu si daara ji nga xam ne fépp fu waay nekk lépp loo bëgg mën na la koy indil boo fa bëggee ñëw si daara ji mën na la jël si delloo la loolu lépp fa tabarakallah bokk boo ko woowee seen i ñaan la mooy kii bi nga jege boo dafa ku ne si yoon eh, eh, ki ma nekkal infoline mooy information pour waaleykum salaam wa sëriñ bi mbay 77 017 41 45 macha allah barakala si waaw yàlla yàlla yàlla may la barke doxa moom fi ba koy eh, fépp fu doom foo nekk wallaay ndeysaan bëgg ñu wala nga bëgg am lu nu la indil ah, mën na la ko indil ba sa dëkkuwaay yàlla na yàlla may la barke doxa euh, ci taxi Wadduha bi <laughs> ak 70 54 79 017. 41 45 41 45 Ahmed Tidiane naat la bi gannaaw timis indil ba sa dëkkuwaay mën na la jël siit indi la daara ja mhm. mën nga ñëw daara ji bëgg a delluwaat sa dëkkuwaay mu ah. yóbbu la yooyu yëpp tabarak la bu nu yàlla dimbalee si kattanam te yàlla nu ko defal defal ko ñëpp suñu yéene daal seex du mooy ñëpp mu ci bismillah am na solo ah, eh, nu ngi ñaan ñëpp soo sëlmalee boo sëlmalee da ngay ba masha allah <laughs> da ngay sujjoot jàng rabbi laa tasal ni far waaye nag gars yi nee nañu ko jafe nga de <laughs> gars yi ko wax de waaw <laughs> ma a leen non man xam naa si dara parce que déjà bu ñu defee émission mm-hmm. pour nga amaat ko sax beneen direct boo seetee bi nu gëjee toog mat na un mois walaay te lépp lépp nag amul benn bés boo xam ne bii toog nañu nekk suñu yitte waaw lépp it masha allah si tey doomu mais ñu koy sant yàlla bu baax solo tàllal loxo borom yàlla bu tamit te nan koy waxe lu bëri ku ñu la fa sunu sunu la nu koy dellu naa koy wax yenn saa da ngay toog nit mu ne dem naa si maamal bu nekk da nga naan ko la ma koy njëkk a gàgganteel fekk si woo tey maamal nga man jaa ki nga ñëwal jaamu ki man la ak ya, man bismillah maye dañ ko koy taxit nan ko koy delloo te koy sant yàlla it macha allah si coobare mu nuy yokk ngi ñaan ñëpp ñëpp ñëpp yokk. xam nga yéen suñu yéene <laughs> sëñ Cheikh mooy loolu may wax rek xam nga maanaam yéen xam naa leen mais tey wax ci rajo moo jafe walaay walaay walaay parce que xam nga lu tax bëri na ay émission yu ñuy def ci sëriñ yi walaay ndeysaan wax ay ci ba finalement aussi tamit doo ko bëgg sax ñii di animé émission ma di nga gis koo xam ne aussi day toog ak sëriñ bi ah walaay walaay day tàgg sëriñ bi day tàgg sëriñ ba nga foog ne xanaa ci moom ci yàlla la jóge walaay da ngay da ngay déglu yenn saa yi sëñ Cheikh yoo xam ne da ngay rus sax da ngay rus ay nan jox yàlla cëram yàlla yàlla waaye nit toog yëpp yàlla yëpp kum naan nangam jaar may nangam ku ñëw man nangam nangam am na si yoo xam ne bii gis nga sëñ bi waaw ku gis sa lu nit gis boppam yàlla génne si loxoom te yàllaay lépp na jox yàlla li mu moom na jox yàlla li mu moom d'accord naa ñu dégg pour ñu góorgóorlu dëgg la dëgg la wallaay da ngay dégg yenn saa yoo xam ne da ngay rus te koy koy wax <laughs> la yàlla xam doy na xam nga lu nit di wanewu war na jiitu sa moom dëgg la waaw mais nag bismillah daal moom mu ngoog. parce que. yàlla nu yàlla yokk gindi. amiin yàlla gën nuy woon dëgg. yàlla gën a dàq caaxaan. amiin yàlla gën a yàlla génne sunu xel yoon. naxe ak dil. yàlla na ñu yàlla musal si loolu. ak képp koo <laughs> gis nga ñi xam ñoo war a wax. ñi xamul a dem jàng wax. wallaay wallaay bi. Eh, te sëñ Abdoulaye euh, bi sama waajur di wax. comme ne mën naa ne. sama 40 ans. xam nga lii ko amul xam-xam doo bi doo wallaay wallaay bi ma sew sama waay jur di wax sa tur dana wër dana daj àddina. amu ko ma ñaar fukki at. kon loolu kon leen jagleel la. allo si sant yàlla sant si waay jur yi tamit. ñoom ñëpp yàlla dogal na tey na nga bar sax yàlla yokk leen. yàlla yokk seen leer. waaye ñun daal si njub ak lu yàlla gërëm la ñuy dox. waaw sunu lépp lépp lépp lépp. daal dañu koy delloo jàlla jàlla ndax yàllaay lépp waaye yenn ragal ñemi yàlla yeeg yenn naxe yeeg yenn wax yoo gëmut yi nanu ko wàññi mais loolu laa wax ma ne leen bàyyi leen sëriñ bi xam-xamam walaay walaay ah non non non c'est pas la peine waaye nag léegi ku ku nu nax dafa neex ah. walaay walaay nit sëñ Mara am na si yoo xam ne ba léegi de yàlla yàlla yéen ñëpp xaar ma fàttali rek yàlla ma permettre ñi nga xam ne yàlla yàlla yéen ñëpp bis daal yoon bi sëñ Cheikh bëri na mu neex keroog sëñ Basiir damay waaw mu ne ma sëñ Basiir jël walaay ndeysaan ànd nga na bëri na ñu mu neexul yoon bi ñu jël mais daal yoon boobu lañ jël di ziar waaye itam suñu yàlla suñu yàlla dimbale mbokk yi yëpp jot bi nag liggéey bi wallaay mbokk mi woote kan la fekk lu ah, mbay ñang la mbay ñang nekk sama rak la ko xam ne saa yu xëy da nga toggal bu <laughs> jege quarante personnes <laughs> ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñuy war dëgg la dëgg la ba may ñëw li may wax nag parce que wàcc na dama jàpp nit ñi dañoo kii leen a dama jégalu wallaay ndeysaan wallaay di ziar ñoom alxaaji ma nekk ci daara ji itam ñun ñëpp ñu leen di ziar wallaay wallaay wallaay ñaan eh, di sàkku ñaan itam ngeen doon ñu ñaan ci daara ji ah, masha Allah wallaay comme lañ nekk woon jaari ba moom lañ nekk fii ba léegi wallaay waaye nag léegi moom yàlla dafa dawal ñu ngi ci suñu yëfi bopp masha Allah loolu loolu passif la wallaay di ci sàkku ñaan bu baax a baax a baax dégg nañ sa lool tamit wallaay lu wér lu wér fan yi passé benn télévision wallaay ndeysaan wallaay wallaay yéen ak kii yi ñu si doon def si sëriñ wallaay da ngay dégg ñu la koy nettali naan ma yaa ngi koy seetaan yaa koy déglu ma ne ko loolu de lépp sawar ñun mbégte la ñu sàmm bu fekkee leneen la ñu wane su dee leneen la ñu wane mbégte la si ñun ndax na ma koy waxee fii ma yàlla yàlla barkeel yàlla yàlla barkeel sama ndigal waajur am naa fa fukki at ak ñaar euh, yàlla barkeel xam-xam bi macha allah yàlla dimbali na ma musuma euh, am sans internet téléphone musula sonné it musuma dépensé jërëjëf ñaar maanaam ñëpp a wallaay wallaay wallaay wallaay amiin yàlla na ko yàlla def ak bëccëg wallaay wallaay yàlla nee na da nga yàgg ci kaw wallaay 628 yàlla na yàlla yàggal amiin amiin yàlla kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax mën nga jaar ci 88 628 jërëjëf jërëjëf jazakumullahu xayran amiin way yàgg amiin barakallah macha allah wóllare la rak la macha allah ñu ngi koy bu baax di koy ziyaara di koy ñaanal di ñaanal daaraam ji comme noonu mu ko waxee yàlla barkal ko yàlla yokk fa barke daara moom dañuy <laughs> eh, ba yokk waaye barke nga fa <laughs> eh, ndax dañu xelel ku fa def baasi numéro macha allah du ñàkk yàlla def fay barke mhm. nañu ñaanal sëriñu daara yëpp comme ni ñu ko daan defee ak imaam yi e imaamu jàkka yi jumaa yi fa tabarak 922 sallallahu alayhi wa sallam 75 70. 922 23 75 beneen bi mu ngi nekk Tëngéej. boobu 77 la. 262. waaleykum salaam wa rahmatulah 28. 77 262 36 28. waaleykum salaam yaaram euh, waaleykum salaam. walaay walaay walaay. ci gindi boo xamante ne nii mën nga bañ a dem sax. di laaj ba tey naafi la boo xam ne naafi la. walaay walaay walaay. te mm-hmm. lii lu am solo képp ku bëgg te nga bëgg mm-hmm. macha allah bëri mm-hmm. fay xéewal ah, gis nañu fii aussi tamit ci li eh, xamante ne nii am barkeeb euh, wayan xalibu bu ilaa afrique daqaayiru xaruna rasid naa fi la boobu kiir laay la waaw ak ñaan la yu nekk ci sixième waaw kiir laay bu rëy rëy rëy rëy nan koy waxee ne jamono ji macha allah ñëpp war a ñaan mucc <laughs> boo ne suba ngay tukki moom yàlla moo tax nu def koy moo xam nag da ngeen damay dem Matam bëgg di mucc wala damay dem Paris lépp loo xam ne pexe la mm. mu soreeg bu jege bu nit a doon rek sàddina bi wala nga yàlla nga ñaan koy jëfandikoo da nga am barke wa yam xale bi la axlihi masuran boo da nga am barke waaw waaw muy yoon bu am solo mm-hmm. comme beneen bi waxee ne barke daraaximul eh, kiis waaw beneen bi moom bi ñaari rakk la rakk bu njëkk bi gannaaw eh, fatiha wa yan xalib dinaa koy wax ne kuy wax ne dafa tëju kuy wax ne dafa moom ngay def téeméeri yoon mu napp si monde boo ko yóbboon àllukaay du la indi ma jën dëgg koy defaan nax lan dafa nekk kon na ku nekk ci ligne bi nañ ko jël 88 628 18 28 yaa mot ni yaa waxaab nga def le plan centré waaleykum salaam wa lii képp koo dégg nga xam ne lépp lu ndeysaan gay xéewal yàlla mën na la koy jàppandalal si ah, yoon si yoon gay gay gay nu ngi nu ngi di nuy sama jigéen bismillah am jaay bismillah jërëjëf jërëjëf gay kontaan ah, trop trop trop ci émission ah. gay di la ñaanal bu defal ak wér. amiin Guèye Guèye waaw ndax yow moom. waaw waaleykum salaam xamaguñ la mais xam naa ci kanam ci ñëpp dañu xam. waaleykum salaam yaram nu ngi lay dégg. waaw man xëy na mënu ko wax mais nekk sama xol lépp da mënu génne dañ lay ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla da suñu borom mu yàgg. 70 54 amiin amiin Guèye yàlla yokk xam-xam bi yaatal xam-xam bi. tabarakallahu alxaaji Modou di dellu di ñaan ñu mel na yow rek bëri ci Sénégal rek ñu ñaan xam naa ne rëcc wu la daal dëgg ñu amee ba léegi moom it di ko dellu ziar bu baax baax a baax yàlla na yàq lu bari yàlla na yàq wàcc waay bi nga xam ne seen lépp ci alquran karim rek la ñu ngi leen di ziar bu baax a baax moom yàlla na yàq yàlla na yàq yàlla na yàq bismillah bismillah amin amin amin jërëjëf bismillah jërëjëf jërëjëf ñaan yàlla yal na la yàlla xamal li kenn mën naa la. amiin amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nañu. moom lay dellu ziar bu wéral la sama sëriñ. jërëjëf jërëjëf 104. jërëjëf jërëjëf jërëjëf loolu am na solo parce que xam naa ne Boy Mara yaa ngi wax léegi sax téléphone. Ah, waaleykum salaam mais aussi il faut ñu boole ci auditeurs yi. walaay ndeysaan <laughs> waaleykum salaam wa rahmatulah. 18 28 98 628. 18 28 maa ngi gis. waaleykum salaam bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatulah muy weer 66 fois. juróom benn fukk ak allahu saafi nga naan ndox wallaay allahu saafi yàllaay saafara yoon bu am am solo la lépp luy tawar rek def ko ndox bu bëri dinaa koy wax ne alxuraan nan koy naan nan say naan ba màndi waaw day nay tax lépp lu lëndëm te léegi li lëndëm dafa bëri te dinaa di wax ne bokk na si doyadal tawat macha allah ak bu mu mën a doon day koy faju si côté yëpp moom dañ ne soo ko bindee juróom-ñaari yoon mm-hmm. alxuraan deg ko si bokk si gannaaw lay xaajoo mm-hmm. allahu safi nga def ko lépp luy tawat fa tabarakala juróom-ñaari fan nga koy def nag jëfandikoo yàlla nga def ko concentré parce que ci ay feebar waaw waaw si kattanu borom bi lépp loo fa dugal ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bi day am na si pass yoo xam ne si mbiru tawat rek la moo xam bopp moo xam tànk yi moo xam biir ay mbot lu mu doon si tawat rek am na yoon boo xam ne soo sa defee tawat moo xam looy jàng la looy bind danay yomb wallaay wallaay lu mu mën a doon rek fa tabarakallah soo demee mën nga ku ko am rek mu nekk ku ko ku ko am rek mucc fa tabarakallah nekk sëriñ ndax ngay doon kii damay ragal est ma sëñ ragaloo ne gars yi par exemple ñu jël téere bii kaal woo ko dem fële ci rajo yi commencé yokk kii fi ne naan ko dem nangam nangam bu boobaa nanu nanu sa jariñu jariñu si rek loolu daal la yéene bi wallaahi yéene bi mooy ñëpp jariñu wallaahi yéene bee ñëpp jariñu sama émission Wadduha foog naa bëri na fi ko ñu koy topp waaye boo gisee màgg fi mu àgg mooy ñi doonoo xam ne yéene naa leen loola ma leen yéene nu delloo ma ko <laughs> amunu seen fay ku mel nii ndeysaan sama jabaat bi génn léegi eh, bokk na si ñi njëkk am kitaab Wadduha mu jële ji ko fa tëngeej moom mu ngi koy gërëm ak defe naa képp ku jóg si barab di dem si barab di ñu jàppale si liggéey bi naafale xarit yi wëllëre yi soppi mooy fépp fu waay war a dem rek lay gërëm di lay sant di lay ñaanal di sàkk si yow ñaan tamit gis nga <laughs> parce que suñ doon <laughs> bind dinañu gindi nit ñi dinañu gindi ndax <laughs> euh, téere yeneen yi ñuy import di ko jënd ay quatre-vingt mille francs ay quatre-vingt-dix mille francs ñuy dem di ko jënd te àdduna rek da ngay jàng pour am diplôme bi dong nga moo tax nga jënd boo paree nga daal na ko mérité wala macha allah yàgg ku mas di defal falaa ko jëlee noonu ku mas di defal alaaji Fall Cissé waaw loolu moo defar kaspar boobu ñaan maa ngi feddale suñu ko leer ak di koy ñaanal wallaay ndeysaan ku ko mérité wala ku ko mérité wala yàlla yàlla mën nañu ba macha allah am loo sa xam euh, ba nga randal fa tabax yooyu yëpp ni ko sama waajur waxee woon ndeysaan ne Mhm. kon damay fàttali nag Madina FM ngeen di ko xam euh, Modou Cissé ñu gën ko xamee ci Mara Cissé téere bi nga xam ne la Baye Mara bind nag loolu ne ittewoo nga ko mhm. nga soxla ko nag mun nga jaar ci 77 617 70 dugal ak loolu mooy numéro sama numéro mooy numéro daara ja ak 70 44 nee na ndigal so mënee defal boo mënul jéemal 79 17 parce que ndigaale soo mënee defal waaye boo mënul baal waaye ndigaale soo ndugal nag soo mënee bul def boo mënul bul jéem mm-hmm. am solo mm-hmm. ndax benn ba njariñu ya yëpp yow yaa ko moom ñaareel ba xaj na da ngeen koy partage ñetteel ba nag sa dara sa dara njariñ nekk moo tax mooy dugal 22. Mhm. dugal moom mu ne soo mënee bul def ko mu bul bul def bul jéem. beneen bi nekk eh, euh, Ibamar dafa jàppandi. 36 gannaaw bi ngeen defee 78 mm-hmm. mais bu nekkee ne par exemple ñi a ti téere yàlla ngi si defal sutura fépp ma ndigal yàllaa ngi nuy dimbale ba macha allah jot gi dinay jàppandi ndax yàlla dimbale nañu néew na lool fekk oto boobu fu nit nekk Sénégal tey amuñu fa wëlëre mm-hmm. néew na macha allah xam ne ko loolu internet bi moo nekk point wadduha point org képp koo xam ne bëgg nga xam dara si Mara Cissé soo defee www.wadduha.org bisimilah da nga fa fekk lépp loo xam ne bis wax waaleykum salaam wa rahmatulah interview bu ma mas a def ak journal la ñu ngi sant bu baax yaram émission bu ma mas a def télévision wala émission bépp boo xam ne mas naa ko def rajo soo demee jërëjëf jërëjëf du nuyu bu baax tamit inspecteur joxaane mu ngi jëkk dalal fi almadina sama émission Wadduha bi may def siiwal tamit invité woon naa ko fa macha allah jërëjëf waxtaan bu ama ama am solo même waxtaan boobu mën ngeen ko am si Wadduha ndeysaan eh, mhm. wax eh, eh. a euh, maa ngi fiy gis nii mm. nga ne pour la visibilité mm. wér a wér a si looy si waaw wallaay am na si askar yu bëri njëriñ yu si nekk mooy lu nit di jàng sa giiru ah, dund yàlla dañ lay may kattan naax doo masti naax tamit te it ay feebar yu paralysé yu bëri yàlla mën na la si dimbale te lépp ah, na ko waxee buntu bi mooy borom bi fa tabarakallah soo ko ñaanee mën na lay may te nan koy léebee rek ah, man xararal baax wala ja wala nit moom lépp lu mu nekk te sax sa dëggu sa dogu sa yàlla dana ko fekk yàlla yàggale

càmbaraat ko semaine bii di ñëw euh, su ko defee dañu lay bàyyi rek nga tàggatoo ndax comme une heure temps lañ am te temps bi jeex <laughs> dama lay bàyyi sant yàlla lu si jub yàlla lu si dëng ñu di wax ñëpp ne xadd bi mooy dimanche mooy aljuma bu nekk rek si kattan yàlla suñu yàlla dimbalee 22 ñëw fi wettali contact yéen nu <laughs> si jégalu fa tabarakalaa si rediffusion suñu yàlla def la incha allah dëgg la dëgg la kii woote kan la di wettali contact yéen suñu dëkk waaye buntu lycée Seydina ah, Limamou Laye bu Géejawaay buntu lycée en face autolycée bi yenn yàlla may la barke Duha Touba téléphone maa ngi koy nuyu Serigne Fallou sama jarbaat bi fa nekk jërëjëf Mbaye buy képp ku waaw képp la woon dëkkuwaay bi jërëjëf si kàttanu yàlla lu dul bésu àjjuma si kàttanu yàlla mu ngi eh, koy waxee yàlla jiitu la fa jërëjëf Mbaye eh, nga fekk fa loo gërëm it loolooy suñu yéene di yokk ñaanal bu baax tan di ñu wax way jur yi jitu di ñaan yalla safara tawadi yalla faj aajo yi tabarakallah yalla yok xewal yi dak galam ko yalla yombalal ñepp te dekk ti bëgg sang tabarakal njabot yi samale yalla laq yi fi yaq agul wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf jërëjëf mara vraiment ma ngi lay gërëm tamit ci livre bi nga xam ne may nga ma man xam naa léegi mu commencé def émission loolu la ñu yéene wallaay mbay kii dogal xam naa demuma sax pour atelier xam naa ne ku ko jënd xam maa ngi gërëm ñëpp suñ fal bu ma wan a taabi ci yàlla tàkk tàkk tàkk ma wax ne Almadina FM yéen bokk 100 point 8 seen leen ko doon présenté ci Cheikh Fall Sow Mara leen ko defal altuma bu jot coordonnées yi nga xam ne moom la mën a jotee Mara 77 617 70 44 77 617 70 44 beneen bi nekk 70 104 79 17 70

xasee mi leen andiloon. Ah, dañuy kontaanoon si waxtaan rek moo tax ñu fàttali ziare bu baax a baax. jërëjëf yal na yàlla barkeel. kontaan nañu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. barak laa fi jërëjëf. 70 104 77 pour nit ñi amee lu mu bëgg noonu fàttali kon te ko wala lu mu bëgg a yokk ndax comme daara la Wadduha daara la macha allah lépp luy jariñ doomu aadama si kàttu yàlla dañuy yéene di fi mbokk yi ni ko suñu xarit waxee bisimilah waaleykum salaam wa rahmatullah ay jafe-jafe am na luy aar njaboot di aar kër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

amiin amiin amiin. di jaay nag di Moustapha amiin amiin Cissé. kontaan nañ trop trop trop trop. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf Cissé jërëjëf. macha allah jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf Cissé jërëjëf. mbokki sëriñu daara yu ñuy dégg. Mhm. ku si dugg it am bëgg loo baaxee. Mhm. mbokk yi ndax looloo wadduha daara la fa tabarakallah mhm. loolu la ñu yéene eh, macha allah képp ku si dugg rek boo mën a am loo mhm. wettali konte mbokk yi bismillah bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Modou yaram la ñu ngi sant bu baax yaram ah, ah ñu ngi nuyu si Ahmed Tidiane moom ah jërëjëf day dellu nuyu Ibrahima Niang Ibrahima Niang ah jërëjëf Niang sëñ Ibrahima Niang Niang Niang dañ ko xam ci Ibrahima Ndiaye nii naa bàyyi Cheikh maa ngi lay nuyu. lay delloo ñu lay fay bu baax Cheikh la. jërëjëf ñoo ñoo la raw ñang ñang ñang ñu ngi déglu waxtaan bi. kontaan nañu trop Mbaye yaa ngi fasaaleel. waaw ñu ngi ñu ngi sàkku ñaan ci <laughs> ngi sàkku si yow ñaan. <laughs> yàlla xam na ne ku leen sopp la ku leen. walaay lay sa walaay ñang jërëjëf ñang. waaw chaque fois dama leen topp di leen yàlla yokk barke bi waaw ñuy fàttali ñaan di rafetlu émission bi sama iya, iya, mag iya. boobu dugg léegi mbay ñan ndeysaan ko ñaanal amin amin ñang amin trop ñang nañ baax ñang man ñang ñang masha allah leen barke yi masha allah ñuy jar di ñaanal lan bismillah bi keñ mbokk mi waaw man sekk waaw sekk. sekk sekk. waaw léegi pour biir bi métti bi laa bëggoon nga waxaat ko. waaw incha allah baax na dinaa si ñëw léegi bu neex yàlla. ñu ngi jégalu ñu ngi jégalu si dérangement bi. waaw incha allah baax na baax na Cheikh Ahmed Tidiane. 70 104 79 17 Cheikh Ahmed Tidiane nga marqué ma boobu xam naa wala nu ñëw si rek. waaw comme ni ko sëñ Habib waxee. ki si yoon bi bisimilah. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waa kañ mbokk bi. Cissé eh, mbokk bi Gay. Ah, gay. ah Alaaji Modou ah, waaw waaw waaw Gaye gay Cissé bi yaa nangu wér yal na yàlla nangu Gaye Gaye te ñoo ngi dolli ñaan di ñaan yàlla guddal fan yu baax amin amin gay amin amin xam-xam bi wéral xam-xam amin amin amin gay. ñu lay sant ñu lay gërëm jërëjëf Gaye jërëjëf waaw ndax amul rëccu dara rëccu dara dara dara dara si yow wallaay ndeysaan Gaye waaw ah, nañ la ñaanal yàlla guddal fan yi dañu tànn sax damaa ngi jéem a dugg maanaam sax ba dugg nañ. wallaay ndeysaan wallaay Guèye. wallaay waaw ah, de xel mais xol beeg yëpp a ngi si yow. wallaay xam nañ ko bu baax xam nañ ko bu ah, baax Guèye. kenn nga ko xam si kenn nga kenn nga fi rek. daal laa mën a xam kenn nga fi xam nañ ko xam nañ ko Guèye. waaw gis ko mel ne yow jafe na tamit. wallaay yal na yàlla sàmmal na ko la rek. waaw dëgg la adduna yaatu na trop trop trop waaye man de man laa wax man gis ko mel ne yow jafe na trop. trop trop wallaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf Guèye. sang sang baax daf may yéem. jërëjëf Guèye. waaw dañu ñaanal rek yàlla bu def fan. waaw man mënu ma def mënu mënu ma waxe sax ci kanam xanaa ngay wante daal. wallaay wallaay baax a baax bu def fan. wallaay wallaay wallaay yàlla yokk xam-xam bi. amiin kontaan nañ Gaye Gaye fekk na. ñu woote wala bu ñu dikkul yëpp si daal. wallaay xam nañ togg togg ci togg di déglu tey man ndax ñu xaw a dikkee ndax bu ñu bëgg sax di yàq émission bi dara. wallaay wallaay xam nañ ko bu baax Gaye xam na bu baax yëg gi ak cofeel gi ak yéene bi lépp xam nañ ko jërëjëf wallaahi jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nañ trop wallaahi sëriñ Gaye jërëjëf waaw su ma la déggee rek damay dégg ma la déggee rek damay dégg wallaahi ndeysaan wallaahi waaw lépp lépp lu nekkoon ci xol bi lépp lu ci lépp day seet te du wécc wécc macha allah wallaahi wallaahi Gaye Gaye ana jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf barakallah Gaye <laughs> mhm. 70 104 79 17 macha allah sëñ Gueye bu Tëngéej. Tëngéej maa ngi koy ndokkeel bu baax macha allah di koy ñaanal. di ñaan yàlla def ko mag. amiin yàlla sàmm ko. yàlla yàggal ko ay wayjuram. ndax macha allah dafa am loo xam ne amul njëg te mm. mooy cofeel te yëg nañ bu baax cofeel gu ma am si mm-hmm. ñun mm-hmm. alxaaji Modou Gueye 70 mm-hmm. ngeen ni jaar tey 104 79 17 ni ko sëñ Habib waxee woon dama waxoon fatihatul kitab mm. waxoon na feebar tur rek mm-hmm. képp ku yëg ne am nga tawat te comme ni ma koy waxee muy jafe lool ngay gis nga wàññi fukki nit te du am juróom-ñaar ñu si amul lu leen di metti mm-hmm. amaana juróom-ñaar wala juróom-ñeent wala amaana fukk ñëpp sax ku si ne yaa ngi am lay tawat mm-hmm. te ma wax ne tawat mbindeef la ak nu mu mën a tudd ak fu mu mën a toll borom bi ko yebal si jam saa yu ko yebalee rek mu momat bopam mané mhm. ku man fajar ndox ba ngay jëk naan nga jang ñeen fukki bas bismillahi rahim fukki fatihatul kitab mhm. ba mu jeex mhm. nga of ko sa ndox ba bu la soobee nga def yok sa ndox yendo koy naan bu la soobee nga naan sa ba di muy ndox bu jitu see bir bépp febar bu mu doon ci katnu yalla kep ko dekkal da nga si yek tawfiix te billaahi la si laa ilaaha illaa huwa jot naa ay appel fu nekk si doomu aadama yoo xam ne amoon na tawat mosuñoo gisee sax nu woonu duñu si ñaanal duñu si ndokkeel fa tabarakalaa te nen koy waxee yéene bi képp ko xëccal robina war ko bàyyee caabi mooy tax fépp fu sunu kàddu jibee fépp fu sunu kàddu jibee rek dañuy yéene képp ko sa ku ko ku tombee kàddu gi mhm. mën a am loo xam ne bi danga sa mën a jariñu mhm. loolu mooy sunu yéene mhm. loolu mooy émission Duha depuis 2011 ba léegi fa tabarakalaa su ngeen di jógee si www point wadduha point org waxtaan wu ngeen sa ubbi rek da ngeen sa mën a dégg loo xam ne bi lu leen ni luy leen jariñ la wala lu nuy fàttalikonte ak mbokk yi fa tabarakalaa di wax ne loolu mooy yéene bi tey fa la émission siyaara la 70 104 79 17 Cheikh Ahmed Tidiane. Mhm. Euh, di delloowaat nuyo ak ziar alxaaji Modou gay mom mhm, mhm. euh, moom it fa tabarakallahu yéeneem ci Wadduha daal. moom rëy na daal fa tabarakallahu euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla baax. yàlla boole ñu ñepp dafa ñu tawféex. yalla gën yagal yàggal ànd bi gën a sutur bu baax baax. Cheikh Cheikh Ibrahima Niang momit it moom it macha allah noonu mu ko waxee noonu la dal depuis émission bi Wadduha taxawee ba léegi. Mhm. saa yi bu émission bi amee rek. Mhm. tabaarakallaahu lépp lu doon def da koy bàyyi. si ko ba amul fu émission passé rek dana ma message wala mu woo ma ne ma. émission keroog doon naa ko déglu nanga mooy nanga wallaahi macha allah ndeysaan yàlla yàlla yokk ko barke ku am cofeel la moom loolu mbégte la te nin koy waxee almaru maahaman mhm. ahaba fa tabarakallah nit ku nekk la farag yow nag da ko war a faroo tamit da nga war di koy ñaanal mooy tax macha allah jullit ñëpp la ñuy ñaanal waaye dañ si jiitu ñi nga xam ne bi nooy bëggee Wadduha. Hmm, bisimilah bisimilah ki si yoon bi. sëñ Mara. waaw bisimilah. waaw man Habib ma duggaat Habib mbay waaw sëñ Habib. waaw jaajëf di kontaan rek di gën a kontaan rek. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw mais euh, Wadduha solidarité kii boobu nga waxoon solidarité. Wadduha solidarité waaw. waaw moom laa bëggoon bëgg see participer daal. incha allah si kàttanu yàlla. waaw waaw képp képp kuy auditeur nag moom maa ngi lay ñaan moom nga dugal ci sa loxo ndax. yow li ngay def pour jaami yàlla yi. wallaahi wallaahi wallaahi. waaw ndax yàlla bu doon alal nga si wut wala leneen sa xam-xam bi nga yor di nga ko denc bu baax. wallaahi ko nga moom. wallaahi wallaahi wallaahi. waaw moom nit rek la a doon te yow ku déggee sa kàddu ko dal nga ku baax nga. boo déggee yàlla jërëjëf jërëjëf Mbaye Mbaye yaakaarloo ñu nag waaye damaa génte gis na nga nekk si jàng wallahi alazim yàlla moom ci conférence wallahi ndeysaan billahi lazi la ilaha illa huwa nga nekk si conférence bi maa ngi toog fu naan këli sëñ mara te man mosuma la tëg bët wallahi ndeysaan dëgg la loolu nag daf ma daf ma marqué moo tax ma fonk la trop émission yi nag rajo yi damay déglu mais Almadina FM moom mm-hmm. bi nga jógee si Wal FM ba léegi bi mu amee problème astafurlah ba léegi nga nekk Almadina FM moom maa ngi lay déglu di la topp nag wallaahi moom fi jëlee rek yàlla na doon jiw amiin amiin jaami yàlla jaami a incha allah si kattanu borom bi moom sa waay barkeloo rek bu ñëwee sa Ahmed Tidiane dana ko jël le 28 bu nekk la ñuy seet lu fa nekk nu seet ña sëñ tombeel nu mu ah, ah, ah. baaxee leen ko si kattanu yàlla si kattanu borom amul benn problème mm-hmm, uh-huh. xam naa moom dinaa def la tout moom ba ñëw diwaan waaye maa ngi ñaan de nga ñaanal ma bu baax. incha allah incha allah yàlla na gisee bi yomb tabarkeel moom saytaane moom day topp genre mbir yu mel nii. wallaahi wallaahi di mel ni yéen moom du ñu ni ku ñuy téye daal pour ñu bañ leen gis. wallaahi wallaahi ndeysaan. waaw moo tax nga ñu xam ne loolu yëpp yu yiw la lu baax la. wallaahi wallaahi wallaahi. waaw te ñun nag jubuñu mais dañu bëgg di jub ñu jege leen ndax ñu mën a jub wallaay ndeysaan loolu la ñuy ñaan wallaay wallaay wallaay man loolu moo tax émission Wadduha moom bu ci rafetee dootuma am jàmm billahi sama lépp laay dagg ñoom wallaay sax jaaroo ma ci liggéey émission bi wallaay wallaay ndeysaan wallaay wallaay jërëjëf si la amin amin bay amin waaw ñu ngi leen toppee émission jërëjëf barak la premier auditeur fa tabarak la yàlla yàlla barkeel ko bismillah bismillah bismillah waaw bismillah euh, ah man maa ngi yàlla ah, bu baax. jërëjëf. émission bu baax bi. jërëjëf. ah ñu koy wax Adama Diop. jërëjëf. waaw ah, di dëkk jërëjëf. waaw jërë ngeen yàlla barkel la. amiin ah, 70 179 17 bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Eh, maa ngi lay siyaara. yaa ngi fi jàmm ak paa di bi. Eh, siyaare xalifa bi. amiin nga yor sa xam-xam te foofu ci ci ci bu bëri. wallaay ndeysaan. wante de foo ko yaa ngi ñuy xamal lu bëri yàlla xam na ko. wallaay wallaay yal yàlla barkeel lépp yal yàlla barkeel lépp. amiin amiin amiin amiin. dina si kattanu borom bi. waaw jama xewal ndeysaan bég nañ lool jërëjëf. Eh, jërëjëf jama xewal. fika. Ah, ah, yal yàlla barkeel ko. 70 104 79

ak am solo. Eh, xam kii waaye xale bi laa alayhi masruran masruran gannaaw fatiha rakk bu njëkk bi téeméer. Mhm. rakk ñaareel bi gannaaw fatiha wala sawfa yuxtika rabbuka fatarda. Mhm. ñaar yooyu ko ku am mhm. barkeb loola rek macha allah. lépp loo dana yomb dana sakkanta dina barkeel. te barke yi lépp nag. ni ma koy waxee ne nan di farlu si compte barke. te jamono bi macha allah xaj na compte bancaire la ñu bëri gën a yittewoo. mais compte barke. compte barke Cheikh Ahmed Tidiane mooy lépp. compte bar bancaire. Mhm. macha allah lu fay jóg day wàññiku mhm. waaye compte barke loo fi gën a yàgg rek. Mhm. barke day gën a yokk kon koy sàkku bismillah. bismillah salaam wa rahmatullah. Abdoulaye Guèye sëñ da. sëriñ. 70 104 79 17. compte barke loo gën a yàgg nag loo gën a yàgg barke ba yokk. moy tax niñ koy waxe bari le barke lako gën hmm. nan gëna a sàkku barke te fa tabarakalaa te bunt ba yépp doon way jur hmm. fexe am seen ngërëm ak seen ñaan hmm. waaye warmal képp ku yalla bind na ku yalla jox cër dina ko wax lu bari bari da nga gis ko xam la ko yak amana bayu sa xel sax def sa attention eh, bismillah ki si yoon bi 70 104 79 17 da nga gis ko xam ne la ko yàq amaana sax bàyyi sa xel. Mhm. te mbedd mi lu ne defee ne sax met Tidiane. mooy tax dajeeg nit nit koy dajeel rek. Mhm. bu doon ne nit ñi dañ leen ni jëmmal nañ leen jox jëmmay gaynde mhm. si war ma. ndax xamoo lu yàlla nëbb sëy kooku. te ñëpp niñ koy waxee. ñëpp nitu yàlla lan nitu yàlla lan. waaye nit ak yàlla dafa am. bisimilah <laughs> <laughs> waaleykum salaam wa rahmatullah. yal na yàlla nangu sëriñ bi. ah sëñ Alaaji maa ngi la doon nuyu léegi. jërëjëf Diagne Diagne. karaw jotoo am rediffusion bi karaw mardi. Ah, ah, jërëjëf jërëjëf. jërëjëf yal na yàlla barkeel la. amiin amiin Diagne. amiin Diagne jërëjëf jërëjëf jërëjëf. macha amin amin Diagne amin amin Diagne Diagne. jërëjëf jërëjëf Diagne. barakallah fik Diagne macha allah moom bokk na si soppay Wadduha yi. Mhm. macha allah yàlla jóg gisee may macha allah toujours mu ngi topp.

mën nay nëbb siy ba si ñi nuy tuddee na ma yàlla baal si kàddu gi dof mhm. da gis koo xam ne macha allah ku yàlla dimbali la mhm. ku te amaana la nit ñuy gis la nit ñuy gis moom mooy kii dof la mhm. fekk dafa tabarakalaa ku yàlla defar la mooy tax nan di wormaal képp koo xam ne doomu aadama la ndax borom bi njëkk war warmaal doomu aadama si wala xat karam naa ba ni aadama mm-hmm, mm-hmm. loolu danay guddal fan si Ahmed Tidiane ah doom yàlla na doom yàlla nag nga gudd fan mm-hmm. ak ni ko sunu bàyyi joxaane di waxee yàlla na sab lal tooy nee jigéen joo koy ñaanal mooy jigéen bu lalam dee tooy rek njaboot kon xale boo ko yàlla na di tooy mooy ñaanal nga ko mu bëri ay njaboot fa tabarak <laughs> eh, eh, ki si yoon bi waaw tubaab naka moom loolu yi bisimilah wuyul ma tubaab boobu. bisimilah. nee sawa nag moom. allo. mbokk mi na ngeen def. bisimilah. wa rahmatulah. waaw. ñaan kii. kii la kii la Ndour la. Ndour sëñ Souleymane. Ndour Souleymane waaw. Ndour jërëjëf Ndour. waaw sëñ li ma la waxoon fa si toll. ah. la ma la doon soññ foo si toll. <laughs> waaw maa naa fa ñëw moom moom yéeme na moom. <laughs> ah sëñ Souleymane <laughs> ah. baax na kon baax na ba nu gisee. waaw naa fa ñëw moom. Cheikh ñaanal ko ma am fit boobu loolu laa koy wax bi. Ah. yéeme na te yal na yàlla tànn la soxna te bañ may jabar. Eh. Eh, eh. waaw yàlla baax na am naa allah Ndor. jërëjëf jërëjëf Ndor. kontaan nañ trop vraiment. jërëjëf jërëjëf Sey Iba Mara ngi lay ree di tontu woon si li ma la wax de. si technicien bi mu ngi mu ngi lay ree laa wax. ah. Iba Mara. yàlla yàlla baax na. baax na naa fa ñëw incha allah naa fa ñëw jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla barkeel. amiin macha allah moom it auditeur wu. macha allah macha allah depuis siiwal. sëñ Souleymane mhm. Ndour. Mhm, mhm. bisimilah allo. allo. bisimilah. allo salaam wa bisimilah. waaw ah, na sant baax alhamdulilah. yéen sant yàlla bu baax alhamdulilah. ah waxtaan bi neex na trop macha allah. Mm-hmm. jërëjëf. Ah, neex na trop. jërëjëf gis nañ suñu bopp mm-hmm. la neexoon jël sa daal. jërëjëf yal na yàlla barkeel lépp yaram. jërëjëf. jërëjëf 70 104 79 17. fa tabaarakallaahu laay biir bi nga doon wax it am solo la. mu ci di bàyyi xel jaamu yàlla yi. Mm-hmm. Euh, te jaamu yàlla moom boo bëggee jariñu ci moom rek comme ni nga wax rek koo gis rek jox ko cëram. walaay ndeysaan ba ba yàlla waxee wala xadd karam naa bani aadam rek. Mm-hmm. Mm-hmm. foofu la wax ji jeexee. moo tax jaamu yàlla boo gis rek. Eh, wàcce ko wàcc waaye wala xad karam naa ba yaa dem mhm, mhm. waaye itam nga jàpp ne fa sa xol ne mool ak nu mu mën di mel nga jàpp ne moo la gën ci yàlla mhm. parce que eh, loolu mooy maanduti xissa boo xam ne daf ma xaw a mokkalu ma ko lool mais xissa ba am solo la si kin waxoon ne képp ku am dàllu dof eh, dana am loo xam ne moom lan lay jox nu wax ko man samay te yëpp gis ñan yi wooyee nu yàlla baal ma si tur bi dof mhm. ma la ni wër mhm. yow moom nga ne ah man di dëkk bi njort naa ne man maa si gën a xaya bi nga jël sa dàll ne yow gisuloon ku la gën a doyadi ci dëkk doyadi mhm. loolu macha tolluwaay la tolluwaay la si nit képp koo gis rekk war maal ko jox ko cër ngir ki ko sàkk ngir li mu doon jëm banni aadama doomu aadama koo gis rek doomu aadama la fa la mooy tax warmal ñëpp jox jër ñëpp suturaal ñëpp danay bëri tax barke di yomb rawatina si xelel yi macha allah yenn mooy loo ko mokkal mokkal ak loo ko tàmm tàmm sooy wax ak koo xam ne bi mag la nga warmal ko nga macha allah ñi ni ñi ni sunu rakk ak sunu jarbaat yi ñuy tuddee emprunté yenn saa yi da dégg si ñoom yenn mooy yu doy waar fa tabaraka la man amaana laago la waaye képp ku mag rek foo xam ne féetale na mag rek nga wormaal ko wax ak moom wax ju tegg mooy tax sa oto mën naa am ku ne siy dugg te nit mën na say dugg fees dell ak baatin wala mayu yàlla di génn sànni la ñaan ñaan googa dal la loolu yi nu koy bàyyale xel mhm. bu dee commerçant bi kasaalika mhm. dafa nga kii ma benn waaye doon nettali ne mhm. eh, kii emprunté bi góor gi def ko laaj paas ñaata la mu ne ko père paas taw la mu ne ko ah man de sama doom mu tawuma damay wis <laughs> góor gi wax ko fa ne ko tawuma damay wis <laughs> taw bu ma jumul mooy cent franc wala ci mooy mooy taw mooy mooy ah waa kay mënoon na ko ni ñaar téeméer ah. <laughs> moo gën a moo gën a taalibe wu mënoon na na ko papa paas ba ñaar téeméer la waaye taw la <laughs> fa tabaraka rek si ne am na moo yu bëree bëri bëri mm-hmm. nu nu ngi koy tàmm te macha allah euh, bëriwul yi teggin mm-hmm. nuy jéem di koy di koy di koy may di yokk war ma lay sunu yéene ak la nu bëgg a wax mm-hmm. mooy nan yokk war ma daal si doomu aadama rawatina kilifa macha allah ndax danay waral mayeeg mayeeg defaru mhm. lii ñu bëri bëgg it muy bàyyi rek mhm. macha allah fexe mag moo dajeel am ñaanam mhm. mën na koy mayeeg fa tabarakallah jiital si waajur yi képp koo xam ne bii moo la féetee kilifa fa tabarakallah 70 104 79 17 xam naa sama Tidiane sunu Ibamar amee lu ñu jëkkatil bu mën a ñëw si lenn si pharmacie Doha comme doon am tey tardement يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك كي والدكتي نجوكي ألاج مودو سيزي نيريكو وحمارا سيزي ميلين أندلون كرافيل خمسون قاف إجاب الرسول سمسول بلاد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

يلا مو يور يور لا ليباي لير الله محمد سيسي مارا وا اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد يا للجر سيدنا محمد يا من الجر يا من منلو محمد رسول الله su la yàlla mayee baat bu neex. macha allah sëriñ Bara Diouf eh, moom itam baax si Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa solo bi nga xam ne depuis 2011. mooy gu ngay émission nuyu di koy siyaara di koy ñaanal. yàlla si barke sallallahu wa sallam. yàlla yokk koy xéewal ak i teraanga. waaye di nuyu bu baax tey siyaara Alxaaji Falluka. deg na nga ma koy nuyul nga xamne man na ne moy sama bunt ndax bo ne buntu li sa Seydina Limaamu lay so wacce fa tabarakallah fallu kay lay gindi pour nga xam quoi bi ngi koy nuyu bu baax di koy siyar bañ ba def ben tableau mhm. ben tableau bo xamne bo yegg montagne bi rek da nga gis tableau bu nu bind keur Mara Cissé Touba telephone keur Mara Cissé mhm. kep ko gis tableau bobu rek boutique bu mu dendel mhm. so demé ci mom dana la de quoi bi te loolu lépp ak passeefam la ñu ngi koy ñaanal moom it fa tabarakallah yàlla yokk ko barke yàlla defal ko tamit yàlla yokk ko yàggal ak ay waajuram Cheikh seex na ñu ngi koy delloo ko ziar bu baax sëñ Fadilou Ka euh, mel ni laay biir bu am solo tamit defaan nga ko ci ñuy bàyyi xel jaamu yàlla yi fa tabarakallah ndax kenn ku ne yàlla moo xam lam defan ci moom Eh, am benn xisa bu ñu nettali ci eh, benn buur. Mm-hmm. boo xam ne dafa tabaxoon palem. Mm-hmm. te tabax palais boo xam ne palais bu rafet la macha allah. Mm-hmm. léegi bi palais bi pare mu daal di def benn fête. daal di organiser architecte yi nga xam ne ñoo nekkoon ci jamono boobu. moo invité architecte yëpp. daf benn fête bu bu riche. Eh, bi ñuy feetee noonu ba mu yàgg rek am benn waay bu dugg si daal sol mbubb mu xaw woyof lool lool lool. Mhm. fekk boobu architecte yi kenn ku ne dalay jox kàddu nga wax nan nga gisee pale bi parce que ndax am na sikk parce que bu amee lu ci sikk rek moom ñu toj ko defaraat mhm. ku ne wax ku ne wax ku ne wax ba mu nee na am benn waay bu ne dara daal di dugg si. Mhm. nee na mu xaw a sol mu xaw a woyof. ci rek. Euh, bi ñëwee léegi nit ñi commencé. ko doyedal doyedal di ko dàq mm-hmm. yooyu mm-hmm. léegi buur bi ne bàyyi leen ko mu daal di ñëw mm-hmm. buur bi ne ko waa yow euh, lan moo xew da ngay architecte mën na ko déedéet mën na ko comme que doo architecte loo looy def fii man architecte yi rek laa fi invité pour ñu xoolal ma sama palais bi ba xam am na lu ñu ci war a rectifier wala déet mu ne ko dama laa soxla woon ndax man nga man nga maa may moom mu wéet yow mu ne ko waaw mu ne ko amul amul problème léegi ñu daal di wéet bi ñu wéetee. Mhm. mu ne ko sa palais bi rafet na lool mais man benn sikk rek laa ci gis. Mhm. maanaam malakul mawtu bu la bu la soxlaa fa muy jaar bu ñëw jël sa wax gi <laughs> sikk boobu rek moom laa gis ci palais bi. naka la ko waa ji wax rek bëggatul dara dara dara ci pale bi. wallaahi allah men xel mi yëpp delluwaat ci yàlla. wallaahi wallaahi delluwaat ci dee. wallaahi moo tax loolu moo tax jaamu yàlla boo gis rek. bàyyi ko xel xam nga ne loolu wilaaya la. wilaaya la ne ko jaamu yàlla boo gis bàyyi ko xel. dafay nekk loo xam ne lu lu. jàngal ba am solo. ne ko lu am am solo. tabaarakallahu Eh, eh, bëggoon da nga koy gis si maison riche et pauvre si mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. internet yi ñaare da ngay gis kër gu taaru lool dend kër gu doyadi waaye nu ne ñoom bu nu fi bàyyi ko seen kër kenn du koy xam ne yëpp benn lay doon kon kër foto fa tabarakala kër googu moo mooy lépp fa tabarakala loolu njàngale bu am am solo la Cheikh Ahmed Tidiane 70 54 79 17 seen émission Wadduha fii ci Almadina FM kon xam naa ñu fàttali mbokk yi rek lenn ci pharmacie bi. Mhm. Euh, euh, fa tabarakallahu pharmacie Wadduha mhm. euh, kitaabu Wadduha di wax ne si bu nu yàlla dimbale lu yàggul dara dinañ mën a mën a am tamit ngor. Mhm. fa tabarakallah ñu nu fa mën nekkal si kàttanu yàlla. ngor si lu yàggul dara incha comme ni ngeen koy amee point 1 fa tabarakallah ni ngeen koy amé nengen ni ngeen koy amé sa dara ji di way mm. sunu ni ngeen koy mëna amé mbour tamit nu ngi leen di nuyu bu baax mm-hmm. madame nya ak sëñ yahya mm-hmm. ak soppé yi nek mbour sali carrefour yépp ngi leen di nuyu di nuyu mm-hmm. haji nek ji nekk fa tabarak la si katunu yalla sunu yalla dimbalé inshallah da ngeen ko mëna am ngor comme nonu ngeen ko mëna amé si daara ja moy dekk way bi di way buntu lycée sayidina di nuyu bu baax tamit si Ahmed Tidiane Alhaji Konta. Mhm, Konta <laughs> di koy ndokkeel si. macha tur bi ci tur bi. Alhaji Modou Konta fa nuyu ko nii bu baax. Mhm. waaye di nuyu Kalidou. Mhm, Kalidou Ba fa tabarakallah sëñ Kalidou Ba. moom it di way jur si Alhaji Modou Ba. fa tabarakallah nu ngi koy nuyu. sëriñ Babacar Cissé. tamit di waajur si Alaaji Modou Cissé. Mm-hmm. moom it ñu ngi koy nuyu. Mm-hmm. ni ki noonu sëriñ A Cissé. A Cissé Boxobe doon tamit si Alaaji A Cissé. Mm-hmm. di turandoo tamit nu ngi koy nuyu. nit ki xalifa. di alhaji Modou Cissé di alhaji Modou. moom it di waajur si alhaji Modou Cissé bu njaareem. moom it ñu ngi koy nuyu ñoo ñëpp doon ay jaamu yàlla yoo xam ne dañu noo dippee seeni i doom. teraa nga gënu la rëy loolu. Mm, mm. nga gënu koy rëy. mu mm. ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal. di ñaan yàlla barkeel njaboot gi yëpp fa tabarakallah. amiin yaa eh, di fàttali mbokk yi rek ne formation eh, Wadduha. Mm-hmm. bu ñëwee danañ ci fekk kitab Wadduha. Mm-hmm. kitab Wadduha fa tabarakallah. Mm-hmm. doon livre boo xam ne pass la. bëgg jaam ñëpp jariñu si. moo doon waraloon yéene bi. sant yàlla ba nu yàlla mottalalee yéene bi. si muy mu. jàppandi am fa tabaraka la sant yàlla lool tamit bi ko yàlla defee si xolu nit ñi mm-hmm. ndax su yàlla defee cinq continents yëpp mm-hmm. yàlla def kitaabu wadduha dem fa loolu jalla jalaaluhu lañ koy sante mm-hmm. fa tabarakallah kitaabu wadduha comme noonu nga ko waxee mu ngi si pharmacie Duha nekk 313 pass euh, am ay na nawaafil ay naafila am ay zikkar fa tabarakallahu ay xawaatim ci gàttal daal lépp loo xam ne nit ki Mm-hmm. lu muy soxla ci wàllu dundam wala ci mm-hmm. wàllu jaamu yàlla lu koy mm-hmm. jëriñ àllaaxira wallaay wallaay ndeysaan yëpp ci kàttanu yàlla bu ko amee rek muy français ak alxuraan waaw muy français ak alxuraan amee mu soxla dana ko fekk incha allah waaye ba tey itam di fàtte mbokk yi ne pharmacie bi tamit am na ci curaayu seytaane curaay yoo xam ne pour wàllu seytaane la wàllu àndandoog yooyu ci loo xam ne bu yaram mu nit ki diisee rek moo xam wàllu liggéey la moo xam wàllu Euh, ku rab dugg ak yooyu yëpp. Mhm. fa tabarakallah cuuraay la mhm. boo xam ne bu ci bu efficace la fa tabarakallah. walaay macha allah ne moom macha allah euh, nit ñi am na lu nu si gis. Mhm. ndax liggéey si lu day xaw nay jafe. te loolu macha allah. ñàkkul dafa am lu muy leen jariñ te dafa am lu mu leen jariñ sax wax dëgg yàlla ndax moom na ma koy waxee ñam xam la macha allah mu ne ko rawatina si ñi nga xamee ne bii seen guddi ñaare day faral di metti day faral di diis waaw danay dem ba ñi nga xam ñaare du am appétit si bu nu waree ànd ak seen soxna mm-hmm. du nu am yenn yëg-yëg yi te bu dee buntu saytaane la mm-hmm. moo koy waral sax si kattanu yàlla suñ ko day suuroo mm-hmm. loolu dana dàq sa ñoom guddi kon mu bëgg ñëpp di nelaw nelaw yu dal fa tabarakala moo tax nu indi ko si pharmacie Duha mhm. comme noonu nga koy waxee barkelu ba nekk téeméeri dërëm mhm. Mhm. Euh, ñi ko jël lay wax fa tabaaraka la ñi ciy seedale macha allah. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. benn soxna ma sonn ma ko wax ndeysaan bi mu ñëwee ne ma cuuraay bi da xamul lu tax nga def ko waaye. Mm. ah dana bëri ñu mu dana bëri ñu mu dàq de ñoo xam ne dootoo leen gis. ndax cuuraay bi rek la ñuy jël dem ma ne ko macha allah nan ko jariñoo rek. waaw loolu rek <laughs> looloo yéeney bi te macha allah. foog naa ñu xam na njor xam na ne ne du tirise depuis 2001 sunu yéene mooy ñëpp mucc ñëpp yokk mm-hmm. fa tabarak la mm-hmm. mm-hmm. ba léegi tamit formation bi am na kiis euh, am na kiis moo xam mag la wala xale la moo xam ñi nekk ci entreprise wala ñoo xam ne ñu ci école yi jàng macha allah luy dalal xel fóot xol tamit fóot xel ba pare macha allah ubbi xel ñaari lan sa boole yoo xam ne yëpp lu ni naan la te muy la am solo. Mm-hmm. lenn la day raxas xel lenn la day dàq fàtte. Mm-hmm. moom it mu ngi si pharmacie Doha bi Cheikh Ahmed Tidiane. ñu koy wecc ko 4500 mm-hmm. moom gis si euh, fa tabarakallahu ba léegi tamit pharmacie bi am na kii euh, gàllaaju oto. muy protection pour voiture. Mmh, mmh, mmh. moom it muy lu am solo. muy voiture muy scooter muy vélo gaal lu mu doon. lépp luy daamal rek. macha allah goo xam ne sunu wayjur yal na yàlla yokk yërmande si moom. yàlla xaj yàlla Cissé lañu koy jëlee. Mm-hmm. macha allah muy gàllaaju daamar fa tabarakallah muy lu am solo. Mm-hmm. moom it mu ngi si pharmacie doxeer. Mm-hmm. moom it ñu koy wecc ko 4500. am na tamit gàllaaju kër. gàllaaju kër comme ni ma koy waxee kër yi ñu leen di taaral. ñu la taaral gannaaw ba mu taaroo si karo baak peinture baak décoration bi. Mm-hmm. ñu koy taaral ba nga xam ne bii macha allah lépp luy sayaatin mm-hmm. du fay sanc mm-hmm. moo taxit ñu indi si pharmacie Doha gàllaaju kër. moom it ñu koy wecc ko 7000 francs tamit pharmacie bi am na. galaj go xamni pour xale yu jigéen yi la. Mm-hmm. pour waaw moom lañ tuddee gàllaaju njaboot. gàllaaju njaboot dinaa di wax né dañ noo tuddee xaritu njabot gi. Mm-hmm. sama jigen yu bari li tuddé bobu tour Mara ci sa xaritu njabot gi. Mm-hmm. motax no indi len ci galaj gàllaaju njabot pour lo xam soko defalé ko xelel wala mag bo xam bi amagul borom kër. du may yalla su dé def ko bëgg. waye su dé dañ ko ko forcer ko ko forcer du ko man fa tabarakallah lolé it mu ngi ci pharmacie Doha. donne woo doon te woo jekku nan ko bu ko tiimee rek ay cëram day damm fa la loolu nuy wax ñëpp si ne duy joteeg lenn euh, xelel bi ko def bu amee jëkkër mm. fu ñu ko xutbaalaa sëy rek loola day yàqu mm. am ku ma laajoon ne ma sama soxna laa ko bëgg defal mm. di kawteef <laughs> ma ne ko loolu du pour soxna waaye pour soxna it am na faw nu am jotaay loo xam ne képp boo ko defee raxasu si boo ànd ak moom képp ko ànd ak moom rek day yàqu fa tabarakallaa la mu yor day yàqu fekk waxu la ko ba nga am loo ko jox mu naanaale ko mais it loolaay continuer mooy tax nan yokk a màndu fa tabarakallaa am na ñu bëree bëri bëri ñuy dox ba mu yàgg taxaw si góor ñi te la leen tax a taxaw loolu rek la loolu la fa tabarakallaa ndax bari na soxna yoo xam ne dañ leen di tookee bu dogul bu dul tookee du santaane borom bi la suñuy màndu mm-hmm. kon fa tabarakalaa loolu nu ngi koy bàyyaale xel ñëpp sama tijaan moom it ñu koy wecc ko 4500 mm-hmm. mm-hmm. ba léegi am na ci pharmacie bi tamit euh, euh, dindi njabar waaw waaw ibtaalu sahir moom it mu ngi si macha allah loo xam ne pas-pas yi ak lu mu si sëf yeeg bu mu si mën a doon rek si kattanu yàlla su ko jëfandikoo loola day toj tan gàllankoor yu bëree bëri bëri sax Ahmed Tidiane njabaro waral si ña to taxaw mën mënunoo déggal xayri si ñi nga xamee ne bii lu nu am mu yàqu si ñi nga xamee ne bii du nu jóg si lal ak bëri na bëri na bëri na yoo xam ne eh, loxo sixir mu ngi si muy lu ëpp weddi si dinaa koy wax ne cëri doomu aadama la fas ba nga xamee ne bii lenn du yëngatu defe nga ne kii na ma koy waxee ne kii am seet tëdd ak moom te yëgul dara mm-hmm. loolu yaa quelque chose mm-hmm. fa tabarakalaa yooyu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bii xeetu pas-pas la mm-hmm. xeetu kortu laak lu mu si mën a doon wala ki nga xam ne dañ koo sànni dara euh, tànk ba mu dal sa tànk ba wala mu dal sa loos ba wala bopp ba wala fu mën a doon wala ki nga xam ne bii fa tabarakalaa ngelaw dugg na ko nekk si biiram di yëngatu saa yu jant sooye rek moom mu yeewu ba fajar am na si ñoo xam ne fii jant sooye rek ñoom tëdd nañ ba jant jógaat yi tuuti na xaw am jàmm ndax yooyu mm. yaramu diis wallaay wallaay yooyu yëpp doon ay sababu seer mm-hmm. si kattanu yàlla loolu si pharmacie doxaas ku ko jëfandikoo si kattanu yàlla mm-hmm. da lay rocc lépp lépp loo lépp loo xam ne bii xeetu seer la sax ma tijaan kon mu ngi noonu dina mm-hmm. jabar bi ñu koy wecc ko vingt cinq mille am na ba léegi tamit ci pharmacie bi euh, Bayra. Mhm. moom it fa tabarakallah muy lu am solo muy lu ñu bëri te it comme ni ma ko doon waxee léegi ñu euh, bëri ñuy sàkku Bayra te macha allah moo tax ñu indi leen si pharmacie Doha. Mhm. Bayra boo xam ne bii danañ koy weccee ñetti junni fa mhm. tabarakallah si kii bëgg Bayra yaramam wala la muy jaay bëgg mu yëngatu. ndax Cheikh Ahmed Tidiane yenn saa yi mën naa di jaayandoog yow. nu bokk lu ni jaay même qualité. fa tabarakalaa même quantité qualité man nga jaay ba jeexal ne indi ma jaayal la <laughs> loolu macha allah wërsëg la waaye it mën na doon yaa quelque chose <laughs> mooy tax dinay baax lool ngay am looy laal dinaa koy wax fa tabarakalaa ñu koy waxee yor butéel boo xam ne bi boo xëyee rek barkeelu si fa tabarakallah mm-hmm. Mm-hmm. ngir say ngir mën a yéwén sa surne neex mm-hmm. loolu day am solo di wax ñëpp it du yem fii pharmacie Doxa am na yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne nu ngi koy waaj si kattanu yàlla si xeetu ndomba nu ngi koy waaj si xeetu yeneen yoo xam ne bi nu nu koy wax si luy woyofal yaram yi boo seet sax Ahmed Tidiane na ma ko doon waxee tawat yi bari na fa tabarakallah te allahu saafi yàlla mi nga xam ne mooy saafara nu dogu si alxuraanul karim nga xam ne mooy sunu wàccuwaay mooy su si lañuy yëngatu it mm-hmm. indi si pharmacie Duha loo xam ne bii danay woyofal yaram yi. Mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bii nu ngi koy paree si kàttanu borom bi sama Tijaan. Mm-hmm. Mm-hmm. ba léegi ci pharmacie bi am na kii euh, gàllaaj ju jigéen joo xam ne dafa nekk diggante. waaw jigéen ju wérul. ju wérul waaw nañ koy waxee euh, fa tabarakalaa mu ngi si kiir laay jigéen ju wérul. Euh, moom it mu ngi si comme na ma koy waxee rek am na médicament yoo xam ne si alxuraan la am. moo tax ñu indi ko si fa tabarakalaa gannaaw ba nu jël médicament. tubaab bi nuy jël alxuraan ba benn xeetu sayaatin du mën a euh, yàq loola nu yor fa tabaraka la Seexna mhm. Tijaan mhm. mhm. kon daal pharmacie bi mu ngi noonu euh, bërëb yi nga xam ne tamit fa lañ ko mën a amee ku ñëw daara ja géejuwaay euh, ci buntu lycée Maam Limaamu Laay wala mu jokkook alxaaji du ci 77 617 70 44 77 617 70 44. wala boudé wala même numéro bobu nous joxé 104 bi 79 17 17 wa momi numéro Mara Cissé la. Mhm, mhm, mhm. ku ci ñëw fofu rek lu mu bëgg ci pharmacie bi inshallah dana kam point E tamit amna euh, na suñu amna suñu waajur ñu fa teewal moo foofu tamit ku fa dam mm, wala nga jokkoo ñom ci 70. 922. 23 75. 70 922. 23 75 waaw da nga mhm. euh, boo jokkoo ak ñoom rek incha allah loo ci soxla moom it da nga ko mën a am. Mhm. Rufisque tamit muy Tëngéej. Mhm. Euh, ku jokkoo soxna Aram Ndiaye Aram Ndiaye euh, Aram Ndiaye. 77 262 36 28. 77 262 28 kon yii daal mooy bërëb yi nga xam ne. wallaahi wallaahi kii ñi dëkkee boori mm-hmm. Mbour. Mm-hmm. Suwal ak euh, côté yooyu yëpp tamit. Mm-hmm. am na fa. si Sali Carrefour. Sali Carrefour waaw incha allah bu ñu jokkoo ñu rek dana leen coordonné ak madame Ña. ma fa nekk fa tabarakalaa wala sëñ Yaxya Ka waaw fa moom it comme ñi dëkkee côté yooyu. kon macha allah kon daal lii lañ doon baaxee mbokk auditeurs yi ci pharmacie bi. Mhm. Euh, lépp lu ci waay soxla rek bu ci demee incha allah. Mhm. Euh, dana ko am ci kàttanu yàlla. mën nga am bu dee dafa ku ne si yoon bi bisimilah. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa waaw sëñ Mara na ngeen def. na ngi sant bu baax yaram. waaw yéen a ngi si jàmm bu baax. na ngi sant alhamdulilah. ñu ngi leen di rek. ngay delloo ziar bu baax jërëjëf yal na nangu. ñu ñu rafetal waxtaan bu baax a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf. dëgg yàlla ñu ngi déglu ñu waxtaan bi moom. jërëjëf jërëjëf. leen yàlla dafa jàmm. allo. jërëjëf ngi lay dégg baax yaram. Hmm. jërëjëf. jërëjëf yàlla fay la jërëjëf sëñ bi. barakallahu fiik jërëjëf. 70 104 79 17 seen émission Wadduha. bu fekkee da nga bëgg loo ñu bëgg noonu laay gërëm te si ak mbokk yi. ah xanaa ñu gën a bàyyi xel rek ne. Mhm. niñ liñ ubbee woon rek. li mhm. ñaan moom bàyyi ko xel dafa am solo. Mhm. mooy li arab yi wax rek al wiqaayatu xayru naa al ilaaj. wallaay ndeysaan wallaay wolof di wax naan fagaru moo gën. wallaay wax ko ni ko tubaab bi waxee tamit <laughs> <laughs> wala da nga leen ni da ngay nëbbatu <laughs> macha allah lu am solo la. ma nekk ko lu am solo la te mhm. ñaan rek fi des nag. Cheikh Ahmed Tidiane. dinaa koy wax même dama koy faral di tooñee sunu mbokk yi nekk si àll bi. mooy ñi nekk bitim réew nu ngi leen di ñaanal tamit ñoom it fa tabarakallaa di wax ne barab yooyu sutura ak ñaan rekk fa des mm-hmm. ñaan moom macha allah jullit bi ñaan rek la am ndax àddina fi nu tollu lépp macha allah man nga ne tey la gën a développé mm-hmm. waaye tey lay jafe-jafe yu ëpp mm-hmm. kon macha allah danoo war a gën a dellu si borom bi mi nu sant ne adduxumu nii mu mel ni ki borom bi bu santaane rek farata la kon day doon farata si jullit bi muy ñaan ndax kay ñaan tawxiit a ngi si moom ndax biir na ko ne mhm. am na koo xam ne bii ma nga koy dégg te am na ku yor lu bari lool tamit loo xam ne bii. Mhm. ku ko ñaan rek lay déglu ngir mu jox ko. Mm, mm, mhm. mooy tax saa yu jaam bi ñaan borom bi rek borom bi day wax ne jaam bi de ku ma yég la. Mm-hmm. jaam bi ku yëg ne am naa la jaam bi ku yëg ne man maa yore xéewal la. Mm-hmm. waaye fa tabarakalaa loolay tax eh, saa yu. saa yu mu ne atxu nii rek mm. borom bi ne la ko mm. su nu jaaree sa yoon ba mm. su borom bi te man manam ak kàttanam nag amaana xaj na ñoo jaar beneen yoon ba won ne ñun ñun noo man wan tuddee nu maa man <laughs> fa tabarakalaa muy baat boo xam ne baat boo xam ne da yàgg naa koy wax si Wadduha waroon na nuy def mars ngir boobu tur nu sensé ko si ñu ko tuddoo si ñu koy tuddoo ñu mm-hmm. ni day ñew yenn saa man dem naa si maman man bu nekk ba pare dama ko naan ki nga fekk si tey mbaa boolewoo ko si ñi man na fa tabarak laa yàlla rek man <laughs> ñaan nag fi lan ko fekk ñaan moom waaye nit ki su le maa man la nga koy laaj moom la ko war jox force waaw ndax moo wax ne moom moo man kon baat boobu macha allah nanu ko seetaat nanu koy seetaat wax ne kenn nay borom xudrat ak iraadata mooy illah allah jalla jalaluhu kuy ñaan nag jaar sa yoon ba ñànd sa yoon ba du tas yaakaar dama mm-hmm. koy waxee lu bari ndax bu setee faw boo ko tàllalee yàlla mu def sa dara mm-hmm. waaye foto ba rakk la su dee sa bopp rekk nga gis mm-hmm. yow yaay mbër yaay ngand yaay li yaay lële amaana xaj ñëw boo dëkkul ak seytaane doo def lu sotti seytaane mën na ñëw nag ne la yow la yaay waaj yi yow yaay ngand mi yow nàngam yow nangam ngay tas di dem rekk fekk te yoo da nga connecté wu si réseau sa àddina sa laaxiraa yëpp da nga ko jënde àddina. loolu it nu bàyyale ko xel. si ne amaane nit mën nañ koy dëkkal si ne xutbu la wala borom wilaaya la wala leneen la leneen la. fekk te wax yaasu yàlla bu nu mel ni moom. da nga si dégg benn xissa ndeysaan. benn euh, xissa benn kilifa goo xam ne macha allah. Euh, xot bu lañu ñu xot bu samaan la ñu bëri fogoon ne moom la. Mm-hmm. waaye bi mu bi muy laata faatu. Mm-hmm. dénk na njabootam yi ne leen néeg sàngam. Mm-hmm. am na ku fa nekk na ngeen ko warmaal. na ngeen ko warmaal bu ngeen jéem a def lenn lu ko naqari. te néeg boobu moom kenn daawu fa dugg lu dul moom. bi mu faatoo nag taaw bi ne man daal li sama wax ne danañ ko warmaal dinaa jéem a xam lan la. bi mu fa demee nuyonteeg moom fekk te kilifa la si sa yaatin yi. mu ne ko man de sa waay jur man la la doon wax maa ko fal de maa taxoon mu am tur lool maa taxoon mu bëri alal lool maa taxoon tamit macha allah mu bari mbooloo lool waaye tamit la ma ko doon la ma bëggoon si moom lépp daf ma ko daan defal kon boo bëggee yow it nga àgg foofu da may defal li may bëgg te mooy loo xamee ne bii du lu déenee di gërëm du lu islaam di gërëm bi mu waxee loolu doom ji ne ko wax yi yaasubillah man ñaanuma yàlla aw boobu yoon fa tabaarakallaa am ajjuma bu jotaan nag góor gi daf daan togg ñam yu bëree bëri. faqiir yeeg masakin yëpp fa la nee xewloo. julli juma door a dem. bi ajjuma bi nu toggee ba pare doom ji déclaré ne tey balay kenn lekk. na nanu ma déglu. bi nu demee bay waaj xewlu mu ne na ñëpp wax ahosu billahi mina seytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim. bi ko mbooloo mi yëpp waxee nu ubbi ndab ya nga xam ne bii moo war na doon xéewal fa tabarakalaa ndab yëpp doon ay gannaaw àll kon loolu doon tegtal si ne mm-hmm. eh, kooku seytaane la dëkkaloon mm-hmm. loolu dañ koy bàyyi la xel ñu bëree bëri rek si ne macha allah eh, yàlla bu nu bokk si ñu saytaane di jay mm-hmm. yàlla bu nu bokk si ñu saytaane di jay yàlla bu nu bokk si ñu saytaane di jay fa tabarakalaa si Ahmed tabarakallahu te mu mel ni lool it dund bu gàtt bi jëru ko fi. Euh, mbooloo alal ak daraja moom. tamit jërut. Euh, walla bari na si loo xam ne li ñuy tuddee karaama. kara mm. karaamal xay ni nga xam ne du dara. du dara du dara man dama si daan dégg dara sonn lool ngir bëgg ko xam. bu ma ko xamee mm-hmm. dama naan lii rus naa ko def. doon yoo xam ne du dara dara dara tam na ñoo xam ne macha allah. tey yor na lu bari te sa loolu lan ko amee. Mm-hmm. te doon loo xam ne boo demee ba wéet tranquille rek yow war nga rus ne lii. Mm-hmm. sa xel war na la yéet waaw nit macha allah nit da ngay day am li ñuy wax juddu bu rëy. Mm-hmm. si wax. ndey ak leneen la nag borom a koy fàggu te muy fulla ak fayda. fulla fayda personnalité ak dignité. loolu nit moo ko mën a utal boppam fu tabarak la noonu nga ko waxee woon léegi rek dagguma la si ne àddina lu yàgg di la salle d'attente la nekk ñu ñëpp di xaar te loolu diggante bu gàtt boobu lépp lu nu si am lu dul ëllëg yaa ayyuhal nafsul mutmainna lépp lu nu si am lu dul yaa ayyuhal nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiya mardiya fadxuli fi ibaadi wa duxuli jannati lépp lu dul nu am lu dul loola rek mën na wax ne perte la te fa tabarakallah yàlla bu benn jullit perte fa tabarakallah mm-hmm. yàlla na yàlla fóot xol yi yàlla raxas xol yi yàlla gënnoo xer si boppam yàlla faj aajo yi tawat yi bari na lool fa tabarakallah waaye yàlla mi nga xam ne mooy saafi yàlla yàlla yónnee si faa mm-hmm. si yaram yëpp ba yaram yi woyof mm-hmm. fa tabarakallah xat-xat yeeg jafe-jafe yi bari na waaye yàlla mi nga xam ne macha allah moom mooy lépp moo yor koom moo yor sutura mu ngi ñaanal ñëpp si ismullahi satar yàlla may ñëpp sutura fa tabarakallah lépp loo xam ne lu nit bëgg la te muy lu yàlla gërëm tey muy lu ko dul yàqal diineem mu ngi ñaan mébét boobu fa tabarakallah motal ko sunu rakk sunu jarbaat sunu jigéen yi nga xam ne bii bëgg nañ wettal dama koy wax lu bëree bëri ndeysaan tey rek maa ngi ko doon wax sama benn jarbaat mané ko sama jarbar xam nga luy xéewal jigen bi ci jitu mané ma waaw mané ko moy am sëriñ bu baax am borom kër bu baax kon lolu moy xéewal bi jitu si jigen ci lima ma bu lolu ñëwé nak lu say tégué doon bonis kon ñu ngi ñaanal sunu jigen yépp fa tabaarakalaay yalla tan leen borom kër yalla may leen borom kër yu baax su leen ko mayit fa tabaarakalaay yàlla dafa leen sa njaboot yo xamna ne tanef lay doon fa di ñaanal eh, ñi nga xamné ne ngi ci buntu ut ñu koy waxee ngir dimbale paa bi dimbale neer bi muy yéene bu rafet tamit di yéene boo xam ne bii képp kuy doom rek bëgg nga ko ndax dinaa di wax ne diggante bulletin de naissance ba bulletin de salaire sore na sore na wallaay diggante boobu yëpp nag waajur moo fa nekk mhm. kon ñi nga xam ne seen yéene lépp mooy nunu dimbale wayjur yi ñu ngi ñaan yàlla bettee leen i xéwal ba nu mën a dimbale wayjur yi yàlla yàggal leen ak wayjur yi lool tamit fa tabarakalaa waaye jur it yàlla yàggal leen lool ak njaboot gi noonu koy waxee ba du ñu séddale lenn seen gannaaw Cheikh Ahmed Tidiane. Mhm. tabarakallahu <coughs> mu comme li maam Sëñ di wax rek. Mhm. la tastari dunia bi uxra ya fata man baa an nuur bi du jaa fa sayan wallaahi ndeysaan wallaahi mu ne Ahmed Tidiane mhm. tekkil ko nit ñi mu ne bul jël leer di ko ak lëndëm wallaahi te mooy mooy mooy jël àdduna <coughs> jaay sa jaay sa àdduna jëndee ko mhm. àllaaxira mhm, mhm, ne ko loolu jar nañ moytu wallaay wallaay laa tasari dunya bi oxra ya fata man a nuuroon bi du jaa fa sa yaddam képp ko def man a nuuroon bi du jaa te ak a bëri da nga ko rëcc ak a bëri macha allah Cheikh Ahmed Tidiane am na si ñoo xam ne bu nu duggee nekk na ngay xool fu ne seen bët ba xam danañ gis bagage yu <laughs> bagage yu xaw a euh, naqaree gis. te loolu du dara na ma yàlla baal. mais macha allah su fekkee ne sa daara dafa mel ni nekk sax ma Tidiane. amaana mën na noo ne ah kii de boo demee nangam nangam fekk kooku si nuuraaniya lay dund. waaw wallaahi nuuraaniya kay naan leer. Hmm. day wuteeg loorit ka nga xam ne bii macha allah. leneen lay <laughs> <laughs> macha allah eh, loolu am na solo waxu Seexul Xadim Si Ahmad Bamba boobu. Hmm, hmm, tabaarakallaahu mel na ni minute yi bëreetul. bu amee ku ñëw kenn wala ñaar rek si 70. 104. 79 17. suñu weenu jël ko. Mm-hmm. door a yëkkatiwaat jotaay bi ba beneen dimanche incha allah. Mm-hmm. di wax ñëpp si kattanu yàlla dimanche bu nekk da ngeen mën a wettali konte ak ñoom si dina FM. Eh, Dakar di 100 point 8 Kaolack tamit di 98 point 8 si kattanu borom bi rediffusion bi incha allah dina am émission bu nekk da ngeen ko mën a dabaatal incha allah ngir ñi mu rëcc si kattanu borom bi. Mm-hmm. xorotobaan laay laay lalaawa ay waay mbindeef yi xam nanu la am nanu la jinne yi xam nanu la rab yi xam nanu la yawaan yi xam nanu la mamadooy ibnu abdalaay bismillah bismillah asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, fii de man la euh, Alla Ndiaye Yara. sëñ Alla moo xam ne Ndiaye waaye ñu ngi teewlu incha allah. walaay jërëjëf Ndiaye euh, jërëjëf yàlla yàlla nangu. jërëjëf jërëjëf jërëjëf wax yàlla yàlla na yàlla xayma. amiin amiin Ndiaye amiin. amiin jërëjëf sëñ Alla 70 104 79 17. di nuyu bàjjan tamit fa tabarakallah ak Omar Diallo mm-hmm. mu ngi leen di nuyu bu baax tabarakallah mm-hmm. Mm-hmm. maa bëgg yonen maa bëgg yonen Seydina Muhammad yonnen maa gënu yonnen bi Mustafa laay laay la laa bisimilah. bisimilah. waaw ku baax. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw émission eh, bi neex na ma ba maa ngi dégg loolu. ndeysaan jërëjëf yaram. kontaan na bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. fan ngay wootee. Taïba sant Taïba sant. ah ndeysaan jërëjëf ñu ngi siyaare mbokki Taïba yëpp. jërëjëf jërëjëf. di wax na solo trop trop. jërëjëf yaram. moom ñu ngi leen baax na jërëjëf yaram. jërëjëf. Mhm. Mhm. laay laay yaa mat a xam. laay laay laay waaw sa waay rasulullah. laay laay laay laay laay yaa mat a xam. maa bëgg sax tey ku bëgg yónneen maa bëgg yónneen bi maa bëgg sax ku xam ci yónneen maa bëgg yónneen maa bëgg yónneen sëñ Bara Diouf <laughs> bëgg yónneen macha allah na yàlla barkeel ko yal yàlla yokk ko barkeel mu mel ni ki ne ni si minutes yu mujj Wadduha si almadina fa tabarakallah eh, lépp lu si jum nu koy sant yàlla jëla jëlaaluhu di santaat bu baax sunu technicien bi ñu jàkkaarlool di bamar job Diop fa tabarakalaa si Pastef beeg dogu bi mu def ngir tay mbokk yi mën a jokkoo ñoom si 104 819 7 du ñàkk benn dimanche da ngeen mën a jokkoo ñun comme ni ngeen ko daan defee si téléphone fixe bi fa tabarakalaa di sant bu baax tamit mm, tey ñaanal sama rak ji nga xam ne moo ubbi tey émission bi ndax ñu dañoo xawoon a am tardement fa tabarakalaa di koy sant di koy ñaanal yàlla comme nañ koy waxee rek yalla def ko mag te yalla sam ko lo rek lan ko ñaanal waaye lépp lo xam lu yalla luy teraanga la si kàttanu yalla ak man-manam yalla man na ko koy may ma nga sa yoon ba yoon bu moy juk yoon bu moy mandu yoon bu moy warma yoon bu moy respect fa tabarakala te loolu lépp sha allah sha allah mu ngi ci mom te ngeerami way tamit allah ba jitu yobuna ngeeramam bi ñu fi desandi te yalla fi yag lool sha allah sa yu ma ñaanal ko fa kon ni ngi koy nuyu di koy ñaanal muy Cheikh Tidiane di khadim rasul gay eh, di koy ñaanal yëg nañ jappandal bi ndax émission bi sha allah bi ko nit ñi déggatul woon tamit ñu bëri ñu ngi ko doon si Wadduha point org Wadduha point org fa tabarakalaa daj ne àdduna fu nekk sa àddina bi nit ñi ñëw fay dugg di barkeelu si émission ya fa jot am kon liggéey boobu comme na ma ko doon waxee yàlla ko yàlla yokkal si téere jëfam yàlla yokkal koy xéewal yàlla yokk wéral cëram yàlla yokk ko sàmm lu bëri bëri di nuyu kër gi di almadina FM fa tabarakalaa di ñaan yàlla yokk fay xéewal yàlla yokk dëgëral yi ñu ko sos ñu fi yëngatoo ñëpp yàlla yokk leen ay xéewal fa tabarakalaa wa Wadduha suñu yàlla dimbalee dimanche bu nekk incha allah danañ fi wettali konte ak yéen di wax ne dëkkuwaayu Mara mooy buntu lycée maam Limaamu Laay buntu lycée Seydina Limaamu bu Géejawaay boo yéeg euh, montagne bi rek si buntu bi dendee ak télé Pikine nga gis benn tableau bu ñu def euh, Touba téléphone Kër Mara so wàccee rek boutique bi dend ak moom mooy Touba téléphone soo demee alxaaji fallu Ka dana la woon dëkkuwaay bi lu dul bésu àjjuma si kattanu yàlla lu dul bésu àjjuma si kattanu borom bi na nga fa li 10 heures ba avant timis mhm. waaw ba bani ni julli timis diggante ba bu jaam bu fi ñëw rek si kattanu yàlla yàlla mën nay def gisee di ñaan képp koo xam ne say mbir nar na fay defaroo yàlla yombal jotaay yombal gisee képp ku ñu yorul say mbir fa tabarakalaa ñuy ñaan lenn bañ say jàppandi nuy déggante bu dee sa faj ak aajo ma nga sa nuy déggante wala wala ma nga sa ngir si nga dem si beneen jàmm di ñaanal sëriñu daara yëpp it comme na ma ko daan defee di ñaan yàlla barkeel xalima yi yàlla barkeel lor yi di wax ne nan jàpp ne lépp lépp yàlla la yàlla moo man yàllaay defar bu ko defee nu jaar si yoon bi yàlla dana nu yokk rus waaye Seex Ahmed Tidiane fi tabarakalaa am na yu bëree bëri bëri suñ ko def nak bu yagge man nay doon leneen fa tabarakalaa te ñu bëree bëree bëri ngi ni sanni xeer te dina di wax ne waja ak waja nak do xam kan la waye waja ak gaña dag naan waja mo tooñ kon bu ñepp day wax nak bu yagge xaj ñam man nay doon ci ñun man nag ñaanuma mukk sha allah jël ben yoon ba te moy bo ñewé bo ñewé bo ñewé man jëluma bobu yoon yoon bu ma jël dal moy fa ku yalla bolé lepp yombu mooy tamit saa yu ma toogee lépp lu mën a jariñ doomu aadama dinañ sa dogg suñu kéem kàttan si kàttanu borom bi di wax ne looloo nekkoon seen émission suñu jokk jokkuwaay mooy 77 617 70 44 77 617 70 44 xam taxi Wadduha it ma ngi fi fa la pour képp ku fa bëgg ñëw te sa tànk diis wala nga bëgg nga am lu mu lu mu la indil ak yu mel noonu lépp loo soxla si daaray Wadduha soo jokkoo ak si Ahmed Tidiane fa tabarakallah si 77 017 41 45 fa tabarakallah moo yore dana la coordonné ki yore taxi Wadduha ngir loola nga itoo fa tabarakallah nga mën koy am te coono yi xaw a wàññiku looloo nekkoon seen émission baat bu dee bi nu xaw ma si baal coono yi la lépp lu si jóg nu koy sante yàlla jëla jëlaaluhu loo si safana ñu ngi leen koy jéggalu gannaaw bi nu ko jéggaloo borom bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh Ahmed nu bàyyi la nga tàggatoo si nit xanaa rek di dellu di sant yàlla baax a baax jul si sidna Muhammad sallallahu alayhi wa euh, di wax rek ni lépp lu jub ci wax ji rek ci ñu koy sante yàlla ci kattanu borom bi la lépp lu ci dëng ñu koy jégalu yàlla di ko jégalu ñu doon déglu ñëpp.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

ngir faj sa mbir wadduha yàlla mo ci giñ yor yor la léppay leer alaaji mamadou cissé mara wa gol allahumma salli afdal salatin ala اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد المدينه اف ام المدينه اف ام au cœur du salon